نبي عزيم وسناني عنه سدي نبي توحيد الله قلبي يا رب المنتهى ولم يكن Jesus. خلدي لم ينهني مبارز وغير ربي بارز إبليس لا يبارز جند عزيز الأحدي لم ينهني من يغتال أو من لقلبه مرض وليقود في الخراب ربي يا ما لم يجحدي الله كان الذي بما يبغز العالم سبيما غدا وعليه بما خاد وخير هدي هديته لو يدير من شاءه وفي قدي مدى لي غرب بجميع سيد البشر واللي يوم نونا شاء

بسفدي ناديت ربي الكريم بكتبه ليس تريم أنوارها وليارم أحمد خير سفدي يقيني لا وهو كل بجاه رسول الله من نهجه يدي ولساني ما فؤادي وجوستي ماري الغيب يبوس امتداي جملة حسن النبي من الألف والبلوس الكلب والنفير أمين النبي هدايا للجدال عليه صلاة الله في الحفو والغدير بتسليم عليه بآله وسبه باق به فزت بتيم ah, ah, di sant rek ak a gërëm ah ci ñëw gi ñëw fii bàyyi seen yitte jóge ba senegal sori na ngeen ñew ba France xalaatu len kenn fi itam bi ngeen fi ñew lu may soxna nday magat Fall mi ah, nga xaji ne toujours guddi gu nek da nek man ne ne ci télé bi lay ci internet bi lay nek di joko yeen ba muy siwur seen waxtaan ah, ba ngeen ñew ba France il faut que da ngeen ñew fi defal ko fi waxtaanu mam Cheikh Ibra ah, loolu kon ak tiant euh, mënu ko fété ko no ngi ci sante di len ci kërëm kon dal guddumu gatt dal manam sante mo mën ta ba sant mën ta sant ndax loo sa loo wax gannaaw da sant rek loo wax wax wax ci sant naa rek ci ngay mujj si kon daanaka jërul guddal te waxtu bi gàtt na te defe naa ne am na loo xaay ji ne sëriñ Ndaw mi waajal na ko ah pour bëgg nu koo baaxee kon daal li may ñaan rek maanaam nañ ànd ak dal ah maanaam gën a teewlu ba lépp la nga xamante ni ji ne mi ngi ko fiy wax muy suñu njariñ rek ah maanaam ak nu nu mën koo jariñoo di di di sant bu baax a baax itam nag ki nga xam ne buñ fi teewee jëmmam ma tey muy soxna Maguette Fall mais nga xam ne bëgg Cheikh Ibra Fall ak dund Cheikh Ibra lañ ko xamee te loola jiitu na sunub gisee te yàlla dogal na ñu ngi door a gisee lépp lu ñu def ci maam Cheikh Ibrahima Fall dara ump ko ci nag lépp lu ñu def ci Cheikh Ibrahima rek mi ngi ko topp bu baax a baax ñu ngi ko ci ziar bu baax di ziar kilifaam gii nga xam ne mooy maam ma Faye di jàmbaar moom itam. di koo xamante ne bii bañ fi nekkee ba tey saa su nekk mi ngi wone mi ngi ñuy won bés bu yàlla sàkk ne awma ma sago ci yéen ndax tool bi ngeen di liggéeyal Serigne Touba di ko jëf di ko ta di ko doxe di ko waxe ñu ngi leen di ñaanal bu baax ba dal gii ñu dal fii fi yéen te liñ fi yéen lépp mooy liggéeyal Cheikh Ibra te Serigne Cheikh jëmm dey waxoon nanu nanu jàpp leen ci lii ma leen sant ndax lu leen ci waay defal Cheikh Rafal la ko defal noo ngi ñaan luñ ci am yàlla na ko bokk ak yéen noo ngi ziar bu baax kilifa yi fi teew yëpp nag di jëwriñ daayira yi fi teew xam naa nuyoo bi nag dama koy teg ci loxol Serigne Saliou Ndiaye di jëwriñ ni daayira maam Cheikh Ibrahima Fall muy fédération maam Cheikh Ibrahima Fall bi nga xam ne moo lëkkale mboolem Baye Fall yi nekk Italie ak li ko wër. teg ko ci loxoom mu tegal ñu ko ci loxol mboolem jëwriñ yi fi teew yépp di ay kilifa bàyyi ko ci gox bu nekk ci itali di jaajëfal baax sëñ Alioune Badara Ndim mi nga xam ne ñoo ànd liggéey bi te Serigne Cheikh jëm mu boole nu muy liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall xam naa waxtaan wi nag day loo xam ne daanaka duñ ne guléet ndax donte ne tey lay doraam waaye yàgg naa am ci télévision ñi di ko topp ndax ñi fi ñëw ñëpp. ko ci saafonteer lam lay wax moo jës bu mu du ma ko du ma ko tardé kon mel na ni yàgg nañoo xool liggéey bi waaye tey nag dafa am loo xam ne ab cër la boo xam ne yàlla dogal ñu cërale ko soxna Maguette Fall mii ak soxna yii nga xam ne ñoom la àndal tey ñuy liggéeyal Serigne Touba di liggéeyal Cheikh Ibra Fall muy fas yéenee waxtaane ci diggante ñaar ñii muy Cheikh Ibra Fall ak maam bu Ndiaye xam le itam Cheikh Ibra léegi rek ñu ngi ciy waxtaan niñ fas yéenee waxtaanee Cheikh Ibra suñ ko suñ ko ne waxtaanee dana tax ba ñu xam lan moo doon doonoon mission maam Cheikh Ibrahima Fall ci kaw suuf baay Fall mooy lan ndax li ñuy gis ak li ñuy dégg ak la Cheikh Ibra nekkoon benn la wala ban wute moo ci am loolu laay leeral Cheikh Ibra nag ñimewu ko ñimewu gu toll ne toog fii naan foog naa ak yaakaar naa moom. luma len fi wax ci mam Cheikh Ibrahima Fall ku Cheikh Ibrahima yar momako wax mba ku Cheikh Ibrahima yar bayam sama digeunte Cheikh Ibrahima mom du sori dama nan la diw neena ma Cheikh Ibrahima neena ko wala diw neena ma bayam neena Cheikh Ibrahima neena ko Cheikh Ibrahima nak waxon na ne aw may téré motax lu upp ci lumay wax dama koy toxale ci ñi mam Cheikh Ibrahima Fall yar ndax Cheikh Ibrahima bindu dedet ben téré lañ xam ci ñum bind muy jess bu murid tey tok di bind téere tok koo du jóg message la yu don yu don sanni sànni ñenn ci ay kilifa yu dekkon ganjur Don ci waxante ak ñom loolu lañ dajale muy gis bu murit waye Cheikh Ibra tok di bind téere tok ko woon jog ta te wax li tax bindu Cheikh Ibra dafa wax bàyyi Mudu Mbay isa ca ties ne ko aw may téere doom sëñ Bamba ami téere waye Mudu Mbay isa ne mané mu na ma dana fi mag ño xamna lu ñu wax deug la ta dañ fi mag ñoo ñe nak amna ñu mo jottu dundal ñu na ma samaam cheikh togon na bis nañu nangam ak nangam ak nangam kon cheikh ibra bindul bi ci desit moy. seigne cheikh mbay yaram neena ma cheikh mudou fatma mané ca touba fall dama tok fi bis sa bay ci cheikh ibra fall sa bay fekk ma seigne yaram ma deg cheikh ibra ne mu ne ko fall mu ne ko yaak mortala sa mom mi ak sam ndjay wàq deg na da ngeen di way moy talif sëñ yaaram na ko ah, waaw faal seera faal na ko ah, baleen ko doom yaaram mu ne ko faal mu ne ko jamono ji sëñ bàmba ne day sufoo ne xam-xam ndax sëñ bàmba kat doom day defar di génn may defar di denc kon ñaari mbir a ngi noonu yoo xam ne moo taxoon maam Cheikh Ibrahima Fall dund ndax lenn lu sëñ bàmbay def ma koy def du am la waxoon ndax defandoog sëñ bàmba dara mooy def ko nawle te sëñ bàmba du nawle Cheikh Ibrahima wax de waaye ku ne xam na ne bu fekkoon ne Cheikh Ibrahima Fall day bind binde bu sëñ tubaa ne yàllaa ma tegtal rasulullahi Cheikh Ibra Fall sañ na ne yàllaa ma tegtal Ahmadou Bamba ndax sëñ Moussa Ka nee na yàlla mi ko moom moo ko ne Bamba moo la moom kon maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina mission bi mu amoon ci kaw suuf mooy ñëw ngir wëri Cheikh Ahmadou Bamba ba gis ko jox ko boppam liggéeyal ko te def na ko kon ñaar yooyu taxoon Cheikh Ibra Fall bindul bàyyi fi waaye nag mag ñim yaral boppam nag kenn ku ci nekk def na ci yow loo xam ne kenn ku ci nekk sóob na la ci loo xam ne man foo taxaw man nga faa wane Cheikh Ibra te kenn du ko dindi loolu danaa ci indi ay firndeel ci ay mag kenn ki moo jur sama baay muy baay Cheikh Ndaw mooy sama maam ki ci des mooy baay Cerno Sall ci mag ñi mujj ci gébb la bokk ka ci topp mooy sëñ Mor Ndiaye tombu deel moom it Cheikh Ibra Fall la ko yóbbu ci garaatub tombu deel te danaa leeral lan mooy tombu deel waaye ngir ma waxtaan ci Cheikh Ibra Fall jëmmi Cheikh Ibra mooy kan Ahmadou Roqaye Faye baayam Seynabou njaay ndeyam maam Ahmadou Fall Roqaye mooy wéyjuru maam Cheikh Ibrahima Fall maam Seynabou Ndiaye mooy wéyjuram wu jigéen maam Ahmadou Fall Roqaye maam Amar Fall ko jur ak maam Roqaye Ndiaye maam Seynabou Ndiaye Serigne Balla Fagey Ndiaye moo ko jur ak maam Soxna Balla Ndiaye kon njabi mooy kër baayam ndax fa la ahmadu roqee dëkk wàqi mooy kër ndey baayam ndax fa la roqee lu jub ahmadu roqee dëkk njare mooy kër ndeyam ndax fala la maam bu Ndiaye dëkk Cheikh Ibra Fall nag ñii nee nañ mi ngi juddoo ci dëkk bi ñuy wax njare kër Saali ñii wax ne mi ngi juddoo ci dëkk bi ñuy wax Touré Atuman Fall ñii ne biir Njabi Fall la gën a jamono am ñu wax ne 1855 la gën a jamono ñii indi 1856 ñii ne 1857 maa ngi jéglu lu baax sëñ Saliou ci leeral boobu dafay lépp lu am ay version damay indi ñetti ya man nag attewu ma Cheikh Ibrahima moom attewu ma déedéet ndax xaw ma ko ba di ko xamle toogu ma fii ngir di waar kenn ndax Cheikh Ibrahima nee na mën a waare li muy baax bokk loo gis waroo ko gën waaye kon nag bu fekkee ne taarix daa nettali te joo am ñetti nag yi ma dégg yëpp danaa ko indi kenn ku ne na yaay seet bala ca doy nga jël wala ba nga jàpp ne déggaat nga ko. nga mën caa sukkandiku waaye ñetti dat yi daal lu mën a xew daal mooy sëñ Tuubaa mu ñetti at la ko magee kon boo taarixalee sëriñ bi ci at sàngam la gën jamono rek gën a ñett yooyu jox Cheikh Ibra Fall mm. ñetti at la ko magee ñetti at la ko Cheikh Ibra Fall ñetti at la ko jiitoo Cheikh Ibra ak sëñ Tuubaa bokk at yuñ dund danaa ci leeral waaye liñ nuroo bëri na nag sëñ Saliou mm. danaa ko wax waaye liñ nuroo na Cheikh ak sëñ bi liñ nuroo bëri na ba ñu fi toog ñëpp xam ne Cheikh Ibra sëriñ bi sëriñ bee Cheikh Ibra mm-hmm. wuñ ay at dong yam ci comme tolloo ak dund déedéet ndax ñetti at yi ko sëñ Tuubaa magee la ko serafal mujj nuróo nañ lu bari danaa ci dëkk léegi nag Cheikh Ibra Fall mu juddoo ci dëkk boo xam ne ay doomi daara lañ moo tax ñu jàpp ne Baye Fall du jàng ci erreur lañ nekk Cheikh Ibra kër ndeyam ak kër baayam yëpp daara la ndax maam maam Balla Faagé mi jur baay ndeyam daara la yoroon di jàngale mag ñi ñoo mën ca njare bu ma ma ma Balla Fagé masaana génn maam Seyni bu Njaay mooy aw dongay ci daara ji maam Seyni bu Njaay mooy aw moyor nday Cheikh rafal mooy yor dongay di leen jàngal Cheikh ibrahim wax Baye Ibrahima cham nako jang na alquran ba mokal ko tafsir na tere xam-xam ba sun borom nama Ibrahima jamono jëne limay may def ci kenn la koy def ji jamono nak limay def def na ko ci Ahmadou Bamba ma nopp dama wuri Cheikh ibrahim nee ma bàyyi lepp top Bamba moo tax daana wax ci waxam sëñ Bamba tax may gone waaye mag laa woon de Cheikh daana ko wax sëñ Touba tax may gone waaye mag laa woon de wax naa leen nag leen mag ñi lu ne mën nañ koo am ci daraja lu mën nañ ne mel waaye sëñ Touba moom bëru du feeñ nag sëñ Touba moom du feeñ ci ah, moom moo tax sëñ Touba tax may gone waaye mag laa woon de daana ko wax yàlla dogal nag mu màgg ci kër ndeyam ak baayam di doomi daala ci juddu ba it ku xam na ne kenn moomu ko ci ndey ak ci baay te xam ngeen ne dammel moom ci la Joor la sant Jóob waaye Fall la daan sant ku jàng taarix xam loola maami Cheikh ba Fall moo daan doon dammel ci senegal waaye Cheikh Ibra gisul loola déedéet gisul juddu ba gisul yooyu ndekete booba Sëñ yàlla feeñal na kook ñoom ñaara war a ànd liggéey bi te Cheikh Ibra Fall ci ndawam la daan gis Sëñ ci ndawam ba màggaale ko sëñ Saliou ma xamoon nga ne Cheikh Ibra yeggoon nañ ci di ko boole ab ab sëriñ di ko boole ab sëriñ ngir mu koy listixaar fanaanoo guddi ba xam li ko jàpp lu mu doon yeggoon nañ ci tëgg ay jëng di ko indi ngir lan bëgg koo téye ci benn barab parce que gis nañ muy feeñal luñ xamul lu mu doon ndekete booba ku baax ki Seexul Xadiim moo ko daan gane si te kenn xamu ko loolu da koo màggale Cheikh Ibra daa màggale sëñ Bamba moo tax ba digg ba jotee kenn annoncé wu ko sëñ Tuubaa ku yàlla kenn du la ne man maa ne Cheikh Ibra kaa yi wëri sëriñ bi lu du sëñ Saliou Fall ma nga xam ne mooy rakkam te it danaan def bu ko baax ki masaana ñëw sëñ Saliou doo koy gis xam nga Cheikh Ibra nag gis sëñ bi ànd ak sagoom yomb ko woon moom loolu nag bëgg gaa tax waaw moo tax lu ñu dal bëgg nu ko teg bëgg Cheikh Ibra Fall sëñ Touba nee na bëgg wut am Cheikh Ibra amutoon sago ci jàkkaarloog jëmmi sëñ Touba ji te loolu feeñ na ca Mbàkke Kajoor te dana ci dikk bañ gisantee ak su masaana gis seigne Touba yi na may mel na Cheikh Ibrahima di mel nga xamne du deg du gis deg gi dootul ñewati gis gi dootul ñewati gisatu dara ndax xër gem xër ci kooku daal ko seigne Touba Cheikhul Khadim bi seigne sariou di gis nak di ko annoncé Cheikh ba Fall daf ko nan boko gisati deppal ma tank bi waye du ku jóge ci àll ba nak wala kenn kum jaar nga ne ko kañ dem ñu bu la ci ku bax ki dedet ku yalla gindi do reer te Cheikh rafa yalla kum gindi ñëw gi sëñ Tuubaa di ñëw ci kër baayam di ko fekk muy tëdd mu di ko tiim barakam ju mu bokkal ndey ak baay di yëg loola fekk na booba Cheikh Ibra sëñ bi gan na ko leer yi ba nga xam ne daanaka njëriñ xàmmeetuñ wala xamatuñ li muy feeñal mooy lan ak li muy def maanaam ci misaal daal maanaam melokaanu dof ci zahir daal lañ daan gis ci moom waaye dëgg la ba tey nangu naa ndax yàlla nit du fa dem waaw Cheikh Ibra ne am na loo xam dof dof loo koy maye waaw yàlla nit du fa dem waaye bi dig ba jotee nag mu daal di xëy nag ngir wëri ku tedd ki sëñ Moussa kaa nettali na Cheikh ba Fall na ko mas nay xibaar ak njëbbaloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne Bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe waaye kon nag yàlla moo jox ndigal Cheikh Ibra Fall ngir mu seeti Serigne Touba maam Cheikh nag di ko wër comme jox nañ ko ndigal am na ko feeñ koo war a seeti te ñëwuñu ko Ahmadou Bamba la tudd Mbàkke Kajoor la dëkk di way ndaween di way baayam kon wëri ko rek la ca man wëri moo tax nag mu làmb ko ci côté bu ne lu mu gis mu rëy mu jàppal ne ku baax ke lu ne Cheikh Ibra làmb na ci sëriñ bi ne am na ci loo xam ne nag waxtaani biir nag kenn du ko wax ci mpénc moom waaye Cheikh Ibra Fall ne sëriñ bi nu ne bëri na ci sax yu ma dégg ñuy te am na Cheikh Ibra làmb ne sëriñ bi nu ne waaye nag bu fekkoon ne nag ba muy jóg sëriñ képp ko taxoon a jóg ba mu jaaree Badar Gueye fekk na fa sëriñ ba mu jaaree Sine lay kan ki sëñ Modou Maram kan fekk na fa sëriñ ba mu demee tay ba Dakar fekk na fa sëriñ waaye ku baax ki lay wër nag sëñ Touba moo tax armée li Sine lay kan ya la Cheikh Ibra faa def li saqaar guddi nee na fa lañ ko wax yow ne ko ki ngay seet Ahmadou Bamba la tudd Cheikh Ibra xëy. yàlla dogal mu jàkkaarloo ndax waxtaan na nag sëñ Mourou Maram Kan ne ko su fekkee ne ki may seet fii ni ci ñun ñun ñi tee ma koo seeti gànnaar te ñu weex ñi ba xam wala ma jaar Badar Gueye dëkk bii ci wetu siin bu ma ko fa gisul xool fu ma koy wëri parce que koy gis comme ndigal laa am ci toppi ko ndekete booba ku baax ki moom bu nammee Seex Ibra gis ko day jël ñaar def ci ñoom dara yónni leen Seex Ibra nag sëñ yu xetuk sëñ Touba da ko daan xeeñ ne kéro bam gisé cheikh adama gi cheikh makhtar touré té bam leen di gis fam leen gisé sori na kaw lool ndax da doon takkal ab sëriñam ku jub néeg ca fam jaar bam leen séenee dafa xaywi ko ci kaw mu yegg ci suuf da na ja ngeen jëf ñu ñu nuyoon ak mom mu waxtaan ak ñom ñu nako ko daa am kilifa gu ñu yónni mu fi mu na amna keneen ku dul ki ku ne ci tundu wi ñu nako waaw mu na kon kat may leen ma ngeen dem te depp ma taggo ñu and ma séti kooku nekata kami séti kay waja waw bu ñew na serignam gis na feneen fu ma jëm dama bëggon nga ñaanal ma nak ma séti fofu koko tontu ko neko ku ma sa jóge fii da nga dama faji aaju mbolo top la waye jóge fi dem di liggéey fenen dal ki nu musu ko fay def Ibra Fall te nga topp it ba mu gërëmal yàlla ku yeggam fulla la xam nga lu ko tontu da nga gis ma munako wa munako ma xeyna la ma ngi dem munako wa munako monona dem na tuduma jek mu ne ko waaw mu ne kon ñaanal ma nee na ci saa si mu daal di may ñaan ñaanal njëppite boobu nit boo ko jëppee loo koy wax ah demal foo jublu yàlla fi yiw yàlla jublu mais ñaan gu gaaw la ma ñaanal demal foo jublu yàlla fi yiw yàlla jublu waaye Cheikh Rafal nee na ba ma nee tëll génn laa xam ne ñaan gi bal la ismulaay asam la ndax nee na fa ma jublu fa la yiw yàlla yëpp jublu te muy Serigne Touba koro la wax Baye Cheikh Ndiaye daa bàyyi na ko tàgg bu mu séq kenn ci aras ndax malaaka yaa ngay tàmbalee feetu gis gi ma war a gis sëñ Bamba te yëggu moo ci moom ña nga naan ndax yàlla tey ki nga xam ni bu gisee ki gindi jam ñu gindi ko tay ñu gisee malaka yaa ngi kii mbàkkee ka yor man ku fi njëkk gën ku fi njëkk gën ku fi njëkk gën mais ba dem ba ag la xam lay taxa a gën a wul malaka malaaka yi soppuute gin nan bëgg gëm ak jëf bëgg gëm ak jëf bëgg gëm ak jëf nee ma dem ba kanamu sukku ci kanamu sëñ touba ñu nan fo yam yaa fa yemale sa bop ma ah, kon kët nak du nit yalla la cheikh rofal ne ma tambalé jaayante nak motax jaayante sëñ bi jaayante am na solo xam nga fan nga koy xamé mo route nationale bu jóge dakar jëm touba ak apiage bu bëggé yoonu gaaw da ngay jaayante ñu jafee waaw ci la Touba ma ngok bu bëggé yoonu gaaw da ngay jaayante ji mhm. motax Cheikh Ba Fall mën nga ko xamé ci ben kilifa nga ñaan mu na ma gis nga na salaw ya nga gis bi mhm. mu na mu na ma xolal apias bi mu na ma nak Cheikh ibrahim bi nii xam nga day dem bi di dem mu na way bi nak faaw nga melni Cheikh ba da ngay jaayante door jall jàll gaaw légui nak loolu moy mbir mi Cheikh Ibrahima Fall daal di jaayante koro bi yalla dogalé nak mu ex ci seigne Touba motax tax dafa waxon Baye ibrahim tiam Baye Cheikh Wade ndjay moma ne Cheikh Ibrahima nee na bi may jub Mbàkke Kajoor leeri Sëñ Tuubaa daa def lu mel ne faati oto faari oto nee na tàmp ci sama dënn ma niitar yoon te booba ñoom ñaar ñi ma àndal gisuñu ko waaw nee na ma egsi Mbàkke Kajoor gépp àndoo di leer Cheikh Ibrahima nee na ca laa am sago sa tool ne sëñ Adama gi dalal ma néeg daaram ba jàll ma ci ku tedd ki moo tax Cheikh Adama gi da tegtaloo ma gis fa Cheikh Adama gi dégg nga sànni mbiram daal ci mooy moon ko ba bam ko la fa moom xam na gis na ko ko moom mu fa mbiram daal joxe seigne Moussa Ka ma wax la bis ba ngir mu wor nak ñaar fukki fan la ci wéru koor bisib dibéer la mbir ma wor cheikh ray yaay pexé motax am ngeen bis nak seigne saa am ngeen bis ñaar fukki fan koor ngeen diko ko taxawal fii ci Italie di ci wote bay fal yëpp ñuy màggal Cheikh rafal te seigne Mourou Mintaan waxon ne maam Cheikh bañ ko nangul lañ nangul ñëpp buñ ko nangul du nangul kenn kon bis bobé ku bëgg ñu nangul la ku bëgg ñu nangul la laa wax ñu nangul la mais da ngay dem ci bis bu ñu bis bo xamne da lay wour na yow bis bi ak nangoo tax ñu diko def ñaar fukki fani ko nangul gi seigne touba nangul cheikh rafal mo waral ñu diko ko ndax cheikh ibra da jépparu te yalla xam na ne bu ko seigne touba nangul tondu nangul kenn kon ku nangul rek ci bir nangul cheikh rafal goge googee lañ ñaata yoon la nit liggéeyal ab serigne bam yag yàgg ko defal na la ci ngontum cheikh rafal ndax bu nangul nanguutoon ngont dana am du am kon ñaar fukki fane ko lu mata a xel la bis bis bobu bis la te nak da la wax len suñu problème yi benn yitte képp lañ am moy ñu nangul ñu lool rek moy suñu yitte suñu sañon ki ñu topp di ko liggéeyal sëñ Tuubaa daf ñuy nangul xanaa xamoon joxe limi am am solo joxe li nangoku gën joxe lo xamne day lu bari bari bari day ken xamu fu mu dugg day nax say mais sëñ bu doon deureum nak dañ ko nangul rek Cheikh rafal bam ñewé ci serigne bi ñëwul ci sasi sëñ bi nangoko ci sasi dedet xala xamone Cheikh ibrahim bis bi ñew mbacke Mbàkke ak bis bu mu jébbalu bokkul mhm. ma leral ko fi waaw ñu bari dañ ci def erreur xamuñu seigne Moussa Ka nak manul na wax na de mo wax la bis bu ngir mu woor kon waxu ci la jitu won mom mhm. moom li wax moy bako seigne touba Tuubaa ne ko nangul mala ñaar fukki fan la ci wër ko way jitu na mbacke Kajoor lu upp ñaar lu jitu ñaar fan muy fukki fan ak lu top mhm. dañ ñew mbacke bi bim ñëwee di waxanteeg sëriñ bi amna ay fan yom ñom la dañ ko doon waxtan ah dañoo war a taxawal dara booba sëñ bi fanweeri at la am Cheikh Ibra am 27 ans mais lu mat a bàyyi xel sëñ Saliou gi noonu ñaata at lañ am taxawal yoon wi ba tey loolu gars yi duñ ko waxtaane fanweeri at la sëñ Tuubaa am Cheikh Rafal am ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu taxawal yoon wi loolu 30 ans 27 ans ci lañ taxawal yoonu murid te Mbàkke Kajoor sëñ bi loolu pëseef la tey xoolal yoon wi nga xam ne kon. loolu day wane ne maam Cheikh passif la indaale ci sëriñ bi mm. passif te kat danaa la wax lenn de xamoon nga ne Cheikh ba daara ju am daa la fa fekk mm-hmm. Mm-hmm. waaye daara ju amut daa nag Cheikh ba mm-hmm. waaw daara ju amut daa xam nga lan mooy daara ju amut daa mooy tarbiya mooy ñaq mooy joxe mooy mooy joxe addiya mooy raam sujjóot mooy liggéey daara ju amut daa ngi noonu Cheikh Ibra la ko fi indi Cheikh Ibra fekk fu ko jébbalu ndax xamuñu ko won te li ma lay wax bàyyi Cheikh Mbaye Yaram moo sama nijaay Cheikh mudou Fatma mané ne da daa Abdourahmane Lo mako wax ci lamañu bop ci daro daro alimul khabir te ndam mo ma na ndax sa bàyyi Cheikh Rafal wax na la nam tase woon suñu daara je këro ba mu jébbaloo ca Mbàkke Kajoor ma ko déedéet mu ne ma togal ma layele ko bir Cheikh ibrahim bam mu da daa féetewul liggéey ku ko fa gis waxtu fajar nga gis ndax lum yendo yëndoo liggéey ci bëccëg day baye ba guddu jot mu roñ ko su ko dari indi ko daal di jël goj bi ak baag bi rot nday bu noppé tëral goj bi di bale bi señ dam abdourahman lo néna fajar dal, buy fenk ci nga gisa seerafal boo ko fa gisaatee suba la ci waxtu woowu fana kon moy yendo liggé liggéey ne rot gaayé yee nelaw ba naan ganar balay kur kurir mo fa xewal dawul doxé señ Moussa kan ko wax dé néna bis nak señ dam abdourahman lo ne señ tubaa yor ab jakam jak moy banti mag ñi yor mais ñew ba ci sun bunti di fegg nan ndax yewu ngeen ñu na waaw mëna dug tal jang jotna sëñ daaw Abdourahmane Lo nee na Seera Faal yanoo sayu matt ci àll ba ci fajar gi tombe sëñ bi dañu fëgg ci jàng mu daaneel say wi naan mbàcki bàyyil doomu jàmbur yi lii nga leen di wax te wax leen la sa borom wax njëriñ te nga bàyyi li nga maam a ngi yett bu mu tudde Cheikh Ibrahima déglul bàyyil doomu jàmbur yi lii nga leen di wax te wax leen la sa borom wax njëriñ ci te nga bàyyi li nga leen wax mooy wooteel nee na ci ëllëg së sëñ bi waxu ko dara nag ci ëllëg sa maam Cheikh tombewaat ci sëñ bi dañu Abdourahmane jug leen taal jàng jot na Cheikh Modou Fatma nee na sëñ daam moo ma ne Cheikh Fall tombé waat ca naan ko Mbàkke lii de waxoon naa la ko démb ma ne bàyyil doom bu jàmbur lii nga leen di wax te wax leen la sa borom wax ñu jariñ te nga bàyyi li nga di wax booba ba génn décret bi moom ñëpp xam nañ ko ku fi jàng indi ku fi jàng indi woon seetal keneen ku am jotam waaye leneen ngi fi waaye sëñ Saliou leneen lu gën jàng lu doon Cheikh Ibrahima nee na yoon wi su doon ngoro la bu tasee ma la ñu delloo alal ji seen mama ko wax de bu don ngorala bu tassé can ga can ga te ko takkon man lañ koy delo ndax ma ñëk bayyi sama ndey cheikh ibrahim wax bayyi sama bàyyi bàyyi yalla ma sakk japp seigne bamba adom seigne bamba gor la daf ma yewi mara la maag yàlla bu lu ma neexati neex yalla seigne tuwaa ibra faal daa bàyyi ay bokkam bayyi bopam bayyi na sax boromam ba amma waye waaye defaral naa ko boppam mare la naa ko borom boole naa ko kuy bokkam xana xamone yegg ci yalla seigne tuwaa ci gëna gaaw waaw te pourtant mboolem kum séqaloon diine ci nangu nga ko loolu sëñ Tuubaa ñëpp a seede ci moom ñëpp nit yàlla ñëpp a seede ci moom ñi fi jiite woon tariixa ñëpp a ci moom ndax yàlla rek lañ ko xamee kenn ku nekk jikkati nga sa xalima bind jëmale ci sëñ Tuubaa Cheikh Rofal nag loolee la xam nag xam li fi sëriñ bi xam ne lii fi sëriñ bi ak lii ñu fi wut si bokkul sëñ Tuubaa yoroon na lool dama ko sëñ Bosora Samb sama wajur bu baax nettali woon da dafa na ma dafay mel ne tool boo xam ne wurus ak jamaa ca nekk ndax boo ko gasoon léegi commencé woomal nga gis benn waay bu ñëw rek ji fa ay ñambeeg ay tamateeg ne fa di park sonn fa lool te xamul ne bu wàqi woon tuuti la muy wut sa ñam bi ji ak jamaa lu ko ëpp ngi ci suuf ndax wurus ak jamaa la loolu noonu la sëñ bi meloon kenn xamu ko woon li sëñ Tuubaa yoroon kenn xamu ko woon bu du woon Cheikh jàng kese képp lañ fay nekk ndax jàpp nañ ne jàng la te fekk ne serigne bi du lol ndax yeen xam ngeen ne serigne bi du am jang ak yoy bu doon am jang ak yoy kay serigne bi do paxa du ñëw ah, arifina mas nga deg kenn ku serigne touba seexale ci xam-xam bu bari deg ngeen kenn kenn kuñ ne ki bimu mu serigne touba da woné wane xam-xam bu bari motax serigne touba tubaa seexal ko dégg ngeen ko deg ngeen kenn kuñ nan batin bu reuy da ñew rek commencé wane batin na yalla defal nangam nangam tax serigne bi barde ci lolu tax mu defal ko dedet serigne touba dara reuy su mom ko fi deg mu defar ko da jël kalam tak ci ndigam bi ñàkk da ko ñakal ponkal yi fi jaarul ñëpp fu nañu dem fa fu nañu jaar fa jommi bi ñuy sëñ Tuubaa seen kaala si seen digg lañ ko def xam naa ci ñu bëri ma mën naa laa wax fañ jaar lañ fa laaj ak masala yaag lañ jottoona la nga xam ne am na ci ñoon bi ñu ñu sëñ Tuubaa jébbalu taxu leen woon a jóg làmb si lañ doon def dañoo ngiro maa la wax loolu waaw sëriñ bi moom surtout mbind mi sax moo gën a garaaw moom moom bu yër bul yër waaw bul yër boo bañee daraam bul yeur mbindam mom boko yéré yëree la lay ngiraloo yow doo ko xam xamna ci lu bari ñun dañuy waxtaan ak ñu bari loola yàllaa ko ko defal Cheikh Ibra Fall loolu la xam xam li fi sëriñ bi motax tax Moussa Ka nako ya xam sëriñ bi ya xereñ dawo werante ku sëriñ bàjjo bi ya bari ngeeram waana wa yag nga ndaxé ndax am ngay ngeeram am sey deureum fop sey deureum jëndé ngeeram lo ma sa am tabal këram ay da nga la joxé jox nga addi gi lepp yusuf bin Ndour Sefi comme soldat sa sax yaa joxe sa dom di falil fal am na texe Cheikh Ibra nag daal di jaayante comme ñew na ba joxe bopam sëñ bi nangul nako lolu mu daal dugg àll bi nak dedet newu fa di julli Cheikh bi newu fa di wor newu fa di nat asaka newu fa di yoy in la na xam-xamam nak. ci sëñ Touba ndax jàng na lam wara xam-xam nako waye da ñew neub lepp soxla soxlaatu dara Cheikh Mbaye Yaram neena na ko netali ni ci vidéo yi ci internet bi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 cheikh rangi fofu wala wax lol de dégg sama ngor jox naa ko bamba sama njulli jox naa ko ñaar yoy muy wax doonu ma ci dara parce que jéemut a doon dara lepp delu na ko seigne ba pare di gor su gëna a gori nak waye waaye nanguta sax doon gor neena ci kanamu seigne touba dedet cheikh ibrahim neena ku neena ku neena cheikh ibrahim neena li len yalla jox seigne salih bu ngeen ko jox seigne bamba bis dana xewi te bu xewi koo ko jox du ko jox gis nga wërsëg yi sax gaa yi dajale ci banque yi wër ay sëg képp la Cheikh Ibrahima ko mm-hmm. ay sëg mooy armeel maam Cheikh ne nit bu faatoo ay bokkam wër ko ay jegeñaaleem ñu wax lu baax ci yow ba ñaanal la wan la gannaaw lañ lay bàyyee ca bàmmeel ba képp la moom mm-hmm. Cheikh Ibrahima ne la ñuy waaj mat naa bàyyi xel te luñ ci jëf ñu wéndee la ko mm-hmm. li ngeen am te ngeen ko rawal sëñ Bamba la ngeen fi jóge waaye denc mi milliard liggéey sëñ Bamba bi ne fi wóorul ko wax li leen yàlla jox jox leen ko sëñ bamba ndax loo joxul sëñ bamba dana xewi te bu xewee koo ko jox du ko jël Cheikh Ibrahima dencul pourtant maam Cheikh. milliard 1895 nekkoon na milliardaire. Mm-hmm. mais mais mais maam Cheikh 450 francs la fi ba ci xaalis. ma mm-hmm. wax leen ko tey waaw sëñ maag sëñ Aline Badara kii ànd nañ ba Gébu Fall 23 heures ci guddi. Mm-hmm. ka ka nga xam ne ci poojam nii la maam Cheikh ñeganaayoo nii wàcc liggéey ca njëriñ moo wax bàyyi doom jëm moo nu wax nañu. maam Cheikh Ibrahima Fall 450 francs la ci ba ci xaalis juróom-ñeent fukki dërëm la fi Cheikh Fall bàyyi juróom-ñeent fukki dërëm 450 francs ci koo xam ne 1895 nekkam nga milliardaire kon ana alal ja ah joxe nga ko dencul dara Cheikh Ibrahima dencul hmm. musta denc dara bis bi muy wàcc liggéey lépp lu ne woon ci kër ga da ko buub yur sëñ Mourou Moussa Mbacke bis bi muy wàcc liggéey bàyyi góor gi nee na lépp lu newoon ca kër ga da koo buub ñu sëñ Mourou Moussa Mbacke ba lal yi sax dañ ko doon dajji dajji di yóbbul sëñ mu Moussa lal yi bisub altine la saa seex altine ci guddi la wàcc liggéey ba seddi talaata waaw altine ci guddi ba seddi talaata la wàcc liggéey mu tombe ak ñetti fan itam xarit sëñ Saliou ci njaarim ñu xëy denc ko ci ñeenti fan ya bàyyi seex ñag nee na maam seex Rofal bi mu santaane seex Mourou Fatma ne ko nañ altine ji bu dara des ci kër gi lépp ci suba gi nekk saam seex day waaj ñu dajale lépp yóbbu ko xoolal bi nee ba ci guddi gi gannaaw timis voilà seex ñang kër gi daraa ngi ñu ne ko ah déedéet Fall ba mu mu ne ah waaw am na lu fi nekk de mu ne ko ah lu fi ne nu mu demee mu ne ko juróom-ñeent fukki dërëm da ñëw na fi waaye ci ngoon gi la fi ñëw nu mu demee mu ne ko diw moo fi ñëw indi ñaar fukk diw ñëw fi indi nangam diw ñëw fi indi nangam mu ne xeexee gars yi góor lañ de waaye ndax am ëllëg dinañ fay wax bàyyi jëf sëñ bi gars yi wax ji bari na nag waaye jëf moom Cheikh Fall nee na kenn du fay wax di bàyyi jëf waaw maam Cheikh Cheikh Mouhamadou Bachirou Mbacke daal di nuyoo sëñ Bachiroo waajal seex Ba Fall nag waaw dem ci maanaam gannaaw bi mu demee sax moo ko indi Touba moo tax ko am taw feex a ngi noon nag waaw doomi sëñ Touba la ndax mo indi seigne Touba Touba mo indi Cheikh Rafal Touba Cheikh mohamed Bachir mo indi seigne Touba Touba bim fi jugge mo indi Cheikh Rafal Touba legui nak mam Cheikh ibrahim Fall dadi wacc seigne sëñ Bachirou teewe Mouhamadou Bachir ah fananal sa bay dama digon gan ta àppoon naa ko ba ci soxna may tiad ta man kat doom jóg ba nopi seigne Bachirou fanan Cheikh Rafal def ko ci kanam Cheikh mohamed Bachir waaye Cheikh Ibra Fall nag ke Fallu lañ ko fanaanal mm-hmm. waaw mm-hmm. ke sëñ Fallu lañ ko fanaanal Baye Moustapha Seck nee na ma mm-hmm. yaay Fat Diagne moo ko ne keroog bi ñuy indi Cheikh Ibra Fall ci biir kër gi maa ala njël maa aye Fallu keroog maa togg añ togg reer coono yi jàpp moo gëmmentu nelaw nekkati indi nañ saam Cheikh ci kër gi ci fajar gi muy wut matum poftan mu ma tàngale café nee seen luñ sàng mbàjjam leen ci biir mbaar mi ma ñëw ci kenn ci soxna yi ma magoon ci daara ji na ko waaw ki ma li ma séen ñu sàng ko mbàjjum leen lan la man ma santal yàlla sama am Seex Ibra Faal lañ fi indi biig santal yàlla sama am Seex Ibra Faal lañ fi Sëñ Fallu lañ ko fanaanal bañ xëyee nag bëggoon koo denc fii ñu denc ko tedd ki xamoon ngeen loolo fii ci barabu Sëñ Tuubaa lañ bëggoon denc Seex Ibra fee ci barabu Sëñ Tuubaa ko pare woon pour denc waaye sëñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke ak sëñ Daam Abdourahmane Lo ñoom la batale woon boppam ndax fii ñu denc maam Cheikh Ibrahima Fall mooy jàkk yi sëñ Touba njëkk julli ci Touba ko la laaj fu dik seigne touba ndik julli ne ko barabu Cheikh Ibra bam fa julle la ko ne sarax naa la barab bi nang ko wor bal mam Cheikh jël bant samp ko fa amna ñu fa dem da na gis bant ba fa ne motax ko bam ba adina seigne abdou rahman Lo ak seigne Modou sëñ seigne Mandumbe daal di fee la fe la waxon ndax an nañ bis mu samp bant bi daan na abdou rahman yak Mandumbe ker bu ko yalla dogalee fi moy daara gi ñu denc ko fa fofu ci armée li lolu 1930 la bi mu génnee àddina tombeek alxames al altine ci guddi ba sëgg talaata loolu la sama am Cheikh def léegi nag Cheikh Ibra Fall ba muy waaj nag xam ngeen ne musta wàcca waaw Cheikh Ibra wàccul soppil nañ ko aw liggéey nag ay yoon waay wàccul ndax maam Cheikh nee na wàcc biir bàmmeel la ci xamoon waaw déedéet Cheikh Ibra Fall nee na neef ci kaw suddu kon kon naa wàcc na Ibra Fall xamul loolu waaw nee na jàmbar dëgg Cheikh Ibra Fall day bàyyi ko ca waar wa dem ca jàgg ba waaw neena jambar du wacc motax waccu ndax ma ngi wax léegi fi afa ñu tambali seigne Saliou mané dafa am ñaari mbir yu ma marqué ci yoon wi moy ay événement yo xam dafa mat di waxtane ndax ci ngay xamee pëseefu murit yi gasum raay ma ak soldat si ñu France 1914 ba 18 ray mom 1929 lañ ko tambali 30 la yegg fin 30 soldat si nak 1914 la déclaré guerre bi mais 18 la jeex 1918 fin 18 daal ci la jeex ñaari yi sëñ Tuubaa da cee def loo xam ne dafa mat a waxtaane bu dee raay bi sax sëñ bi fekkiwu ko moom waaye soldat si rek sëñ bi leen lii moom man na yàlla defal na ma taw feex ba ña seeni bàyyi demoon waxtaan na ma ak ñoom <laughs> waaw ña yàlla dogal itam ñu doon leen liimu ca ngas ma it fekk naa leen ba waxtaan na ak ñoom soldaar si sëñ Tuubaa léemu ngas ma Cheikh Mourou Moussa Mbacké di léemu waaw 1914 bi guerre bi déclaré fii mu metti lool ci ñoom Blaise Diagne lañ gis waxtaan ak moom Blaise ñëw ci sëñ Tuubaa njaarim Baye Abdou ñang moo ma ne lii ma lay wax si Ablaye Fall ndara ma ko nettali ak Cheikh Moudou Fall ma te demoon nañ ñoom ñoo mujj ñëw sax bi mu ñëwee ne sëñ Touba France de dig nañ ma dér bu ñuul bi ma doon daa am lu ñuy sàkku muy ndimbal nee nañ ku leen ci dimbali luy seen moomeel danaa ko yil fii ci senegal sëriñ bi daal di am ñum waxtaanal góor gi nee na ma am na ñu ko ne tubaab yi de seen pexe sottiwul fi yow. ñuy sàkk yeneen i pexe ndax kaay dem soldaar moom kaay deel ma képp la kaay dem soldaar kaay dee képp la bu seen pexe sotti woon duñ wax loolu waaye seen pexe sotti ñu sàkk yeneen i pexe mu ne nañ ma yónnil ci Ibra Faal mi nga xam ne lu ma yittewoo su ma ko waxee mu def ko ñu yónnee ci Cheikh Ibra Faal maam Cheikh wóolu sëñ yaaram mbay bay yaaram yaaram nis di defee soldaar mu ne ko dañ lay peese nga am nga mat cinquante kilos ñu testé la nga am wér am kàttan ok mu ne nañ ma wutal bëskil Baye Abdou Niang nee ma kër ab laay Darame lañ dem moo jur Baye Daam Darame secrétaire Sëñ Fallou nelaw na bu yàggul mhm. xam nañ daam ñàkkul ñu ko am nañu ko xam nee na ma fa lañ dem di wuti bëskil seerafal na jaal leen ca liver benn xarit tubaabam bu dëkkoon ci raay bi ci njëriñ bañ indee bëskil ba saam seex jug wuti bëskil bi mhm. doo nga yuuxu cheikh moussa fall moko ko njëkk baye seigne cheikh jëm mi tay yuuxu na luma fi def seigne bassirou fall doomi sonu awa jaxata jóob la daaw mom ngeen tëdd woon ñaar fani koor mhm. daal di jóg ne seigne falilu fall taw cheikh ibra mhm. seigne bassirou fall mu sonu awa jaxate jóob doomi cheikh ibra seigne ibrahima fall ndar doomi cheikh ibra bay yaram mbay te magni la mhm. bay cheikh mourou fatma fall te magni la <coughs> bay sekk ganjay ca mag la Abdou sek la tudon waye cheikh rafal noko demal ganjal ko fi ñu doo yaay bàyyam Baye Ibra samanar Samba ca sa dëkkoon Baye mu sek Sarsan ca la bokkoon Baye mustafa Kebe mu jur Falilu Baye mustafa Kan mu jur Falilu Kan ambassadeur Baye Cheikh Diop bu daaree Pajaar do Mama Samba Diop te Ndar mu jur Sidi Diop Sidi gisse Diop nek almagne ñii day bokk nañ ci ñi ñëk a ak sëñ Jibril sar ndey ba loola matee ab lim la sax maam seex ne bu ëllëg jeexu santaane du jeex am leenu daal ñu départ bay mudu bay isaa nee na bi ñuy xaajale alma yi gaal gi pexe di waaj a jeex capitaine moom annoncé na li xew nee na nag ñeent waxtu moom duñ ko defaat ci gaal gi te déewuñu seigne Bassirou Fall mom Cheikh Ibra mi ngeen tudde won bisu ñaar fani daw daaw doomi soxna Awa jaxata Jóoba bay Modou bay isa neena mu yónni mas posatam sagam ci bir gal gi bato bi neena ma genn ko mu genn ci genn rocc xop xobu pon def ko ci genn gi sañ ko ci bam fat mu jël desu kafeem soti ko ci genn gi bam tour mu joxon jant musahar japp Cheikh Cheikh du nit de xoolal mu joxon ko jant musahar japp nee mu pis ben beutam gal ma loxom xecc ba sahar ci genn nee mu sanni sahar ci joli jëm ko ne tuba bi tajj mu no ma Modou Mbaye Issa ma ko faal mu no ma waxal ma capitaine gal gi ne ko bax la yi ci bir gal gi nga ño ko yi ñu wara xex lay gaana ci dem France ba wacc ba bi yépp wacc luy xew ci gal gi door a xew ne ko garanté la sama barke ba ak ci ci awu Jaxate def lolu keroog ca gal ga wala wax lolu de ñibisi ga nak baye Cheikh mourou Fatma nee mm-hmm. Fall ñu mujjé ñew nee na ñu seen loxo dagg seeni tànk ñu am ay bless ma nee na ca France dañ toppoon di xam seeni i tur ba xam fu ñu dëkk tax ñu mujj ñëw nee na nag lañ doy waar moo ca xew dañoo ñëw di nuyu Cheikh Ibra Fall mu bañ ci loxoom dama dem leen nuyu seen bàyyi sëñ Bamba bu nga dikkee ma barki lu ci yéen sëñ Ablaye nee na keroog sëñ Tuubaa ñu attaayal ci loxol boppam nee na warga yi bu ko layangee di ko tuur da ko sotti ci benn kaas nee na di xiim di ñu xelle na ma sëñ Ablaye Fall mën a mën a mbàkki mu ne ma ñooñu ngeen àndaloon tubaab yi kuñ liggéeyloo ba nopp ci yow ba di leen mosal tuut tuut ci seen wërsëg nu mu ko tuddee ma ne ko ana à la traite ma yegg naa fa ak yéen na ma ni des ci seen dund yëpp maa leen ko yore surtout surtout ngeen di mottali ku ci faatu mu dugal àjjana mais ñu jóge fa nag di ñëw fi Cheikh Ba Fall bay Cheikh Moudou Fall ma nee na saam seex na ma waaw Cheikh ma ne Fall mu ne ma ndax xam nga déexañ le mu ne ko Fall luy déexañ le mu ne ma ñaar ñu yëg mbir kee fëx kii jiitu te seen ga ba bënnee doom nu ngeen ma ne ko xanaa dajale di sikkar rek ba jàmm dikk seerafaal muñ na xeexee doom naka la bënn may ko sëñ bàmb yëkk ñu déexañ le hmm. mu jiitu ronu bopp te ma yenu mu yenu bopp ma yenu gaal ga <laughs> ah, ndox mi nee na yanu bopp gaal ga meenu genn ba bàyyi seex nee na ba gaal ga pëttee la bërit na gaal gu du ñu ne xeexee mu ne sëñ ca bopp mën a ca genn ba hmm. sëñ bi ndigal am na solo de <laughs> loola benn la ci soldaar si keroog bi nga xam ne yàlla dogal na ñu ñu ñu te xam naa ca ñooñ nag buñ leen peese matuñu mm-hmm. waaw dañ leen a teg loxo ñu mat maa la wax loolu de xam naa ca ñooñ it koo xamante ni bii daa tuuti woon lool mën naa ne diw la bañ ko peese matu cinquante kilo mu dellu si fi Cheikh Fall mu ne ko waaye demal ñu peese la mu ñëw rek ñu ne ko yow doo mën a dem rek mu xaaju yuuxu na peese la ñu peese ko muy cent dix kilo <laughs> waaw xam naa dañ ko renforcer moom itam moo balola ba gerba ngahamne nag guerre ba nga xam ne daanaka tey dañ koy wax nañ ko fële <laughs> am na jour saa ñuy def affaire yu ne koy waajal ak suñu si xarit ma leen bu du ak suñuy mam yéen ay almaan ngeen di làkk te loolu wér na akay la ci li nga ndigal la luñ jot ci Cheikh Ibrahima Fall ak Touba ba ñu dem ngasum raay ma wax ñaari événement yi mourid yi war nañ ko bayyi xel ngas mi tam cheikh moussa mbakke kenn du ndax jele abray dekk ba dekk ngir juma loolu lu graw la waaw am na ñoo xam sax mënuñu ko waxu abray nak mourid murid ko gas ray bi murid ya ko gas buñ neexon saxaru su burdu ci daw waaw ndax ño ko gas mag ñee gas mag ñi ko doon gas seeni doom gi dundu xamna leen am ñu fekke gas ma ñoo xam ne ba Cheikh Fall di ñëw ak Cheikh Moussa yëpp fa la leen fekk ñooñu maa ngi doon waxtaan ak ñoom app bi tubaab bi appaloon itam gas nañ ko te jotul xëy mhm. it app boobu buñ ca woon te noppiwul dañ koy arrêté loolu yëpp waxtaanee woon nañ ko mhm. waaye kenn du sëñ Mourou Moussa Fall nag kooku moom dama koy cité moom waaw ndax daa am njàmbar ca wone ma bëgg koo leeral sëñ Saliou réunion yi ñu def ak tubaab bi ngir waajal ngas ma am na ci bopp seex Ibra Fall fekke na ko ndax maam Cheikh it fekk na tàmbali ba waaye mhm. fekkiwul yëggale ba am na ci am Cheikh Ibra fekk na ko am na ci boo xam ne Baye Moustapha Seck moo may nettali nee na ma ñëpp a toog Cheikh Moussa Mbacke toog Cheikh Ibra toog sëñ Mourou Moussa toog mag ñi toog tubaab yi santa sëñ Mourou Moussa na ko nangam bu amul du am Cheikh ba àdduwul nag cheikh moussa fall ne bërët wër bayam cheikh ba fall ñëw ba jàkkaarloog cheikh mourou moussa mbacke te cheikh rangi tok cheikh mourou moussa fall laax de daan ne ko mouhamadou moustapha tubaab bi luñ la wax nangul lu la tubaab yi wax nangul liko dalé dalee ba tuba man moussa fall fa ma tërëf dana fa tërëf leen cheikh fall pudd daan ne ni bu ma sané def ni nak mom yegg na mom cheikh ibra ma sané gis mu ñaar loxo fast ci kaw ma ñi ne nañ mom jall na nekutu fi mhm. ah moussa fall sama doom jërëjëf dom a ah, musa Fall sama dom jërëjëf dom dal di addu waaye ponkal mu tolli Cheikh Ibrahima mané addu ci kawam di jël engagement yaay kan haw a seede yàlla kooku du nit seigne modou Moustapha Fall mhm. léegi nak bi lawla amé ñu tambali ngasma bañ koy tambali par équipe lañ ko def ndiarém Sambe Patar Ndula ke Ibra yassine dara ngaabu ba Mbàkke ñu déjji garab yi tàmbali équipe bi Cheikh Ibra joxe mu juróom-ñaar téeméeri nit ñi ndax junni nit ak juróomi téeméer ko doon gas sëñ Saliou waaye Cheikh Ibra joxe juróom-ñaar téeméer ya am sa tulloo mi dëkkoon ngaa bu joxe téeméeri nit sëñ Mandoumbe joxe téeméer la ca des mag ñi jaayante kenn ku ñu indi sa mbooloo mu mat équipe bi maam Cheikh joxe góor gi nee na ma ñooy jiitu buñ gasee ba gëndaloo ñu demaat ca kanam léegi nag biñ ñëwee bay tolloog dala fekk magasin boo xam ne Cheikh Ibra Fall la ko moomoon te ndu la waaw bu ñu ñëwee ba Ndula Cheikh Ba Fall jox leen magasin ñu fay denc dund ba ñu ne leen nag tubaab bi ne leen nag amut liggéey ngir yàlla dañ leen di fay saa bu ñu wàccee dañ leen di fay waaye sëñ Saliou mu xelum murit day gaaw gis nga xoolal benn payor bay dox ay ay at at ñu ko liñ ko liggéey ndax lépp loo xam ne wàcc nañ ñu fay leen ko su ñëwee weer ci ko Cheikh Ibrahima ñu tegalaat leen ko bu subaa ñu fayaat leen ko luñ ci man ñoom du fay lañ wax rek waaw mais bu ñu leen fayee pare la def seen xaalis ñoom ñoo ko xam bi ñu leen fayee ñu ko Cheikh Ibrahima waaw ñëw teg buñ subaa ñu tegalaat ñu ko fa doom tubaab fay rek lañ digg ñoom moom lañ leen fay waaye dongee moom kuñ ci fay nga ñëw verse wat maanaam te liggéey ba àgg nga xam ne am nañ ay at ñu ko liggéey yëpp wenn payoor bay daw weer wi ko liggéey yëpp benn payoor bay daw léegi nag biñ egsee dala wala ndula bi njëkkee ndula sëñ Moussa mbakki nag ñëw na seet si leen góor gi ba faal maajoor laa dégg mu wax ne keroog bi sëñ Moussa di ñëw mi nga ànd ak mbaaxaan mii ngeen di dégg doomi Lat Joor ak sëñ ma surang surang ma surang ma surang gànjool la dëkkoon waaye sëñ Cheikh Ibra ko boole sëñ Mourou Moussa Mbacke surang ngeen ga ca gànjool la dëkk ma surang moo jëlee woon plan jumaa ji defe naa France ok ñoom ñaar la àndal góor gi nee na war warga wu bëri leen sëñ Mourou Moussa jox daana maa ngi janoo yéen di ngeen ci am dimbalal tey ak loolu ëllëg sëñ mu doo ko wax keroog bañ fa jógee nag di gas ba egg si dala fa la leen mu bu mag ba na Sidi Ibrahima Cheikh Rafal ñëw waaw keroog bi auto bu ñuy wax vaccin vaccin voilà nonu tuddu mhm. bu bert la yor seigne fall mbeda ko don dawal doma maam cheikh mi ngi sol maylus bu ñuul kaala samba sangé yi gudd yi la laxaso ba ci may wacc ci suuf mu sol dalli wagganti sol mbaxana nga xamne do gis bopam kala wu ñaari mbaxana wu tek ci har kanam bi rakay feñ kala gi wacc sam cheikh sol maylus bu <coughs> ke sama ko nettalee néna kérok bi mi ñew mi ngi and ak ñi la xamina len leen ca ñawa ña nekkoon ci auto ba ablay Xaar Diop doomi la jor Cheikh wala andal kéro bay Cheikh tal Galo ndaama su gatt la gudd no fan nak Cheikh Ibra ko yar momi ci la bok señ matlo momit mo dend ak mom ci photo bi ni rek defe naa ko xoolee ni moo mooy ki taxaw ni momi tam ci la bok ñu and na Cheikh Ibra señ yaram bay ci la bok señ jay roxay ci la won bim ñewé ba dand leen ni yo dalala daa wàcc oto bi mag ñi ne hé hé sëñ Moussa Ndiaye ñoom teg leen liggéeykaay te yegg suuf ndax kilifaa ngi ñëw bu kenn joxe loxo toog leen rek yegg suuf ñëpp yegg suuf ñu ne saam Seera Fall Seera Fall ñëw mu wàcc daal di tiim ci kaw hé doom seen liggéey bi mbaa foowu leen ko ah déedéet Fall foowu ñu de ah hé ñetti yoon mbaa foowu leen doom ñu ah mu naa ah, Modou Moussa Mbacke mooy góor allah ah Modou mooy góor daan seen pën seen pënd baa may seen aras cheikh ma wax li de waaw ah dom seen ba ni may seen aras Dan ko na war def ni yeen dom ku ko def ni ngeen koy def na gas am leñ ndax pënd bu jaxu so seen pënd bi do fa ñu fanaani sori na de daana te pënd bi kat bu demee day yëgle ko def ko waral yegal ay wajurum lepp ci ci lay tabbi dom say borom yoonu daan na aalin ma kay ma def ni yeen góor gi repel ma ku ñuy wax jibir muti ko tib juroom ñaari pel ci wetam di jor jangila la mu tibbu sanni daal di téen ne xeexee gars yi gis ngeen mu ñu ne ko waaw mu ne man it doom gis naa leen ah. daana waaw fu Touba féete Touba fu mu féete ñu koy joxeñ mi naa ah, bàyyi leen ko xam naa ko doom daana maa ngi bëgg a mat góor de wallaay ancim samam Cheikh wax lii de maa ngi bëgg a mat góor dekete day tàggato talaata joojee ba mu dellu see altina ci guddi gi la wàcc liggéey mat góor moo ñibbi yomal <laughs> góor moo ñibbi yomal hmm? mm-hmm. kon Cheikh Ibra Fall wàccul soixante quinze ans booba làq na ko mm-hmm. bobu amna 75 ans di ñaqal señ bamba ma ngi bëgg a mat góor daal di wax ne liggéey señ bamba doom ku ci yebal sa doom toog bu dikki di sa bay waaw Cheikh Ibra ko waaw waaw maam Cheikh ne liggéey señ bamba ku ci yebal sa doom toog ci kër ga bu dikki di sa bay bu dé sap jam nga ci yebal tok bu ñëw de sap sang bu dé sa soxna nga ci yebal bu ñëw di sa jëkkër doom daal li tax ma ñëw ah na ngeen ma seedeel na ñëwoon na kat doom Cheikh Ibra wax dé ah na ngeen ma seedeel na ñëwoon na ah motax ëlëk dañuy sédel na ñëwoon nañ dé hmm mhm. hmm waaw moo tax loolu la daan tàggatoog ñoom nag góor gi nee na ma daal di nag war oto bi jëm daal di guy ngeen googee fa la seero fal mujj nekkate day tàggatoo mu ne ma nag ba salaata di dellu si altine ci guddi ga fañ fanaan keroog suba la ñu tëdd ca keroog ngoon nga ca guddi ga fa la ñu seexi romb jëm Touba ñu wax ñu naa ñu laaj ñu naa seer maam seera fal fi jaar fi mi asamaan dafa taw keroog ndox mu bari ñu xëy mu ànd ndox mi moo tax nag loolee mu def war nañ ca jànge ñun ne dekete yoon wi amul wàcc waaw déedéet amul wàcc yoon wi kenn du ko jeexal loo xam ne judd nga lu yàgg muy dox maanaam ñëwagoo sax laay wax te da nga fi jóge lu yàgg bàyyi ko muy dox yoon wi amul wàcc seerafaal nee na amul wàcc moo tax wàccut lu mu mas a am jox na ko sëñ tuba loolu nag moo sabab nag sëñ Saliou mu mën nak nag defar mag ñoo xam ne ku leen gis xemmeem Cheikh Ibra xanaa xamoo ne yoon wi dañoo waroon a fexe sëriñ sépp ñu buloon retraite tey waxtaane mag ñi waaw waa tàmbalee ko ci ku baax wàcc ba ci Cheikh Ibra ñëpp la ñu waroon ñi def na retraite ñu waxtaane nag defar gi ma xam xanaa defar gi rek mën nga cee ne li nga bëgg xam lépp nga xam ko ci yoon te doo génn te bi defar gi waxuma la nag sax seex yu mag ya bul ñëw sax ca mag nga ñëwal ci ndaw ñii ñi nga xam ne ndax bi seex Ibrahima dem wàcc nañ ci daara ji sax defar googu lu ne xew na ci ñoom loo xam ne dees na ko wax am ci ci loolu doo si ko wax te seex Ibrahima li ko yàlla defal mooy nam liggéeyal Sëñ Tuubaa ni leen ndeyam liggéeyal Sëñ Tuubaa xanaa xamu leen ne maam Seydi bu Njaay tër bii la Sëñ Tuubaa ci njëriñ bàyyi ab nu ña nga ko wax momal dana raxasaayu ni di rot nday ku tedd ki ci njëriñ seigne touba mas na ko ne yow khiyam yow sama nday seigne bu njaay bu la wo. ci pénc man nga xam ne yow la wo seigne touba tubaab ne mam euh, euh, maam seyni bu njaay ne tek mam asu jóob la andal keroog bay mudu sar mat ko nettali bay mari sar mako wax de ma asu jóob mak sama nday and seigne touba di wax ni ci njëriñ yow ëllëg yowmal khiyam nan nga xam yow wo ci ma mu tek borom touba nako ko khiyam nak diw amu fa doomi diw amu fa ana ki daan jëf nangam rek a fa am ana ki daan jëf nangam nooy xamee ci pénc mën a yow la ñuy woo mu ne teg ba sëñ Tuubaa ne ko kër boo déggee ëllëg ñu ne ana ndey kii xeeti li jaam ñu li jaam ñu jugal wu ji te xam woo moo tax sëñ Moussa Ka ne ko saw ŋàññorot na yaa texe waaw loolu wax la de nee naa la ca commencement ba waa njare nee nañ Seydou bu Njaay jaaxal nañu jur na ñaari ponkal kenn ki dem ba doon waxambaane dof kon daana dégg lu ne waaye sëñ mu Ka nag na ko gaa jaaraama ndey bu Ndiaye mm-hmm. li soxna jaara yor di jaay yaa ko mosal waaye njare njaay ak feneen fu du njare itam bi mm-hmm. saw ngañ rot na yaa taxe maam Seydou Ndiaye bi maam Cheikh Ibrahima Fall ñëwee njaarim daa jëli ndeyam ñëw dëkkal ko da koo dëkkal de da koo dëkkal ci biir kër gi wutal ko keesu boppam goo xam ne dem nañ fa mag sëñ Saliou ñoom ñii mm-hmm. keroog boo ñëwee da ngay gis kessu mam Seydou Ndiaye teen lañ gas te bir soxna yi ku mas a di Serafal day wax né ndabal sama ndey Seydou Ndiaye na dem ba nopi ñu tibbu ko bu ko yob buñ ko ko yobulé bu koy dana ko def ci ndab ci ko ki ayé mag ngi né nañ bu ñëwé ba ci buntu ki ayé da koy kañ ka tagga ka lu nekk mu di ko wax ci lu bax lu mu xam ba Serafal na xana koku sa ndeyee ñu na mu na ah, melo mu du ko ba mukk waaye nag bàyyil xel keroog ba maam Cheikh gane jamono xam nga lu mu wax ca njare indi naa mbër ci làmb ji waaw bàkk waaye indi naa mbër ci làmb ji soxna soos nag du gane de sëñ Saliou kon xoolal la yàgg na de ba Cheikh Rafal gane jamono daf na indi na mbër ci làmb ji waaye defe naa Cheikh Rafal bàkk bàkku na ba àddina bi dégg ko moo tax maam bu njaay di jàmbar yoo xamante ne bii lu ne ne ko ci sëñ Tuubaa te tey xool li ko yàlla faye ñu ngi guy texe ñu denc mag ñi bëri nañ lool waaye Cheikh Rafal laa xam ci ku ndeyam mi denc Touba ndeyam mi ngi ci guy texe ñu denc 1922 la làqu maam Cheikh saraxalu ko xuru Mbàkke denc ko ci armée li Touba yi loolu njàmbaar la te maam Seynabou Ndiaye ba xam moom mook woy mook maanaam mook mook si maam maam Ahmadou Fa Roqee ñett lañ am loolu la yàlla dogal ndax maam Ahmadou Fa Roqee it yàggu fi cheikh rofal la tawlo tek ci seigne saliou fall tek ci son roqayam ab jigen yalla dogal mu teel tawat dal di genn adina ñu denc ko ci gentu keur sali fa ñu wax njëre keur sali mm-hmm. Siri Diop mi nek Allemagne sax moy liggéey barab ba seigne mërëb laay ko doon liggéey lo bam ba ba nopi nak la wax muru la ay chamignam moy njaay Fatma ak ñooñu mm-hmm. na Seyni bu Njaay dañ ko wutal fu mu àggale ab liggéeyam ñu jël ko jox ko goor gu ñax wax maam Issa mu Diop ci Melal Diop mu am ci maam Assu Diop moy chat maam Seyni bu Njaay maam Astou Diop mooy ba mbateen dem kër ñu jox ko sa maam sëñ Daaru Assane Ndiaye mu am ci sëñ usmaan Ndiaye sëñ Modou Ndiaye Astou sëñ Ibra Astou Ndiaye caatloo soxna bu sa Ndiaye soxna bu sa Ndiaye ba matee dem kër ñu jox ko sëñ Abdou sëñ Balla Coro mu tawloo sañ ab Mbacke mar te ci sëñ Bay Mbacke jaaxal moo tax loola mooy taarixu maam Seyni bu njaay ak dundam moo tax Cheikh Ibra Fall nag yàlla dimbali ko nag mu defar hmm. Hmm. Hmm? ah ok ok waaw xam naa kon temps bi des na lu gàtt ma wax ko ci defar gi ndax man defar gi dañ maa ñor man fi ne mag ñi ma gundi ku ma xam sax xam loolu man du ma waxtaane gone hmm. mag ñi rek tey mag ñi damaa gis damaa gise ci ñoom lu ma gisul ci kenn man man bokk naa ci ñi nga xam ne jàpp naa ne sax fi ne sëñ bi ëpp na ci man ba tax na lu mënta ñàkk tax ma di ko laal waaye man maañ ci defar gi man man ku ma xam-xam na ñoom laa faral la ko sabab nag mooy du du ma du ma maanaam du ma du ma gëm lu ma tegul sama bët di weddi lu ma gis hmm. te damaa gis wolof nag daf ne kon na samaam gaynde la booy ragaleet fexeel ba say bët xonq hmm. li ma gis ci mag ñi gisuma ko ci kenn ndax gis naa ku yéeme ku ne waaye ku mel ne Baye Thierno sàll moom mosuma ko gis fenn <laughs> armée la yi la daan nekk ci barab Sëñ Assane Fall Dan garder barab ba fa la dan ne amna kilifa bu baax seigne Saliou duma wax turam neena na ba denc soxna su gawal mu seigne Touba goudi maag bay Thierno Sall den koku neena ma man ak diw ak seigne bay Thierno Sall den mu yor ben tire bon walu max diw lañ ci bindu lu garaaw la lay wax bay Thierno diko xol xool mag la neena kilifa gi abugo ko bay ko Baye Thierno doomu al mu nako ah, ah dom, xolal way bu lañ bët de mm. xolal rek yam ci way bu lañ ba mu yàgg mu ne ko war a lu la ci réer nga dem aras laaju ko léegi sëñ boobu ne ko waa man bàyyi na damaa joti aras mu ne ko mënut a sa bàyyi ma fa njëkk a yóbbu de doom sëñ ko xam naa ki mu doon kay na Sall toog ba mu yàgg mu ne man ma faatoo Touba déedéet daal di am bi bagaasam jóge ci armée li Touba yi aw yoonu gibb faal Baye Mouhamadan Touré nee na ma ko ñu barabu sëñ Saliou ba laa dajeeg bàyyi na Sall na ko na foo jëm mu ma damay dee ma ne ko waaye sëñ bu wax mu booba tam xarit ñetti fan a ci des mu ne ma cere tam xarit ji xanaa xamul du ma reer ci cere tam xarit ji ma ne ko bàyyi cere da ngay bañ cere mu ne ma déedéet damay deey waaw mu ne bañu ma cere damay deey ma ne ko waaye foo dee ji mu ne ma jébbu faal ma ne ko doo dee tubaab mu ne ma déedéet ma ne ko lu tax mu ne ma dee ñu taxañ taxañee ma denc ma ci saasi na muus mu faatu la du def loolu mu ne ma gébb ga ma doon ñàqale Cheikh Ibra fa laa gëm fa laay faatoo su ma fa faatoo suñ ma fa yanoo jëm seen man Touba malaika yi di bak ba waa mi lepp xamna ci cerno sàll ngi ñëw daal di gont dem géebu fatu ci guddiga ñu fanaane ko ci loolu rek indi ko tuba denj ko ah, ma señ mi bi ñooñu duma leen fi romb dem ci keneen maam cerno sàll ngi te ku garaw la ndax bi day dem wacc na ci daara ji sax waaye cerno sall te mom ci nur darin la dan dox nuuru darin waaw baye moussa sek neena mas na ma ne mon yeen day tax guddu fan da koy jàng waaw baye cerno sall sey rafa la ko yar ci géebu ba wu doom nag Cheikh Ibrahima dafa am ñoo xam ne moo tax maam Cheikh du nit xoolal ñetti ñii fi leen fi Cheikh Ibrahima jaare ñoom ngir yéegal leen ci yàlla ndax xoolal Baye Cheikh Ndawit fi ko Cheikh Rafal jaare ngir mu dem ci yàlla xoolal ñii ma wax la sëñ Saliou de tax ñëpp war a maadu ci Cheikh Ibrahima te gëm ko mbaa ñu bàyyi ay mbiram Baye na Sall boobu fi doom Baye Mor Baye Mor Ndiaye dànq boobu fi doom Baye Mor Ndiaye tombu del boobu fi doom ñu sax kër nag ndax Baye Thierno Sall moom Seera Fall moo ko ne dem na wuti yàlla lu fa waay taxawal ci àdduna saay saay mën na ko ba mu des yàlla waaw Baye Thierno wax loolu de xam nga ñii bowuñu fi doom léegi xoolal Baye Cheikh Ndaw xam nga ñaata soxna la yoroon juróom ñett fukki soxna ak juróom ah waaw <laughs> muuru kenn xamul nu mu te Cheikh Ibra na ko na bari bëri looy mu ndax na nga bëri musóor maa la wax loolu de bàyyi mbéy nga daan laaj ko boo ko gisatee koro ba ñuy nattab la seex Ndaw ak bët yàgg yooyu ci kanamu Cheikh Ibra maam Cheikh ne xéxé moom te gis naa musóor bari yu ko topp waa xoolal kii fi ko Cheikh Ibra Fall jaarale ak fam jaarale ñi te ñu fekk seeni jamono ko ne xam na ne Baye Cheikh gars yi xam nañ ko. ah waaw xoolal fi ko. jeex tàkk sa njaga juuf. ok xoolal fi ko sama boroom jaarale moom Baye Cheikh. nga xam ne defaram defaram mooy comme saaga sa aajo faju benn xam naa ci yoo xam ne sax yu garaaw la. duma ko ragal a wax nag duma ko bañ a wax ndax Baye Cheikh moom. kep ku koy waxtane bu xoromul rek waxtane woo bay Cheikh waw bay Cheikh mom bu xoromul mom xamoo bay Cheikh mom seigne saliw dafa am kum massa rombu muy ndugg ben soxna bay Cheikh rombu ko doxal gannaaw tap ko soxna si ne bëri jug na man may jabe gari ma tap nangam dem indi convocation ñëw jox ko bay Cheikh Baye Cheikh ñëw di wuy si Diourbel commissariat bi foofu fekk commissaire bi dama war a àtte mu ruux ko léegi xam nga ñaari problème a ngi noonu léegi loo loola moom se lool si loolu loolu kenn mënu ko at kenn mënu ko lijjanti moom moom tàpp na ndaw si ci marché bi ndaw sa indi problème dem indi ko convocation bay cheikh ñew di wuy si fekk commissaire bu tok mu dox gënaaw ruux ko muy ñaari problème ñu wara lijeenti waye bañ ko topé ba top ko nekata kim tap mom, né daf ko né da nga séeg diw sangam wéxal nangam ci xaliss ngir am do mëno am do sama borom xamal na mom sama loxo bi bu la laalee li nga bëgg da nga ko am korok lu ëpp juroomi junni indi na ko ci wéxal ak borom kërëm ngir wéxal ko bay cheikh ci jotaay ba nekata kim ruuxit yàlla daa dogal day góor goo xam ne daa mënul boppam. bàyyi seex bu dee yoom noonu la koy faje mhm. bu dee ku amul doom noonu la ko doon fajee. Mhm. kim tàpp daa mënta am doom. Mhm. kim ruux daa yoom. mas ngaa dégg loolu ci àdduna loolu ñu xam bàyyi seex xam nañ loolu moom ko moom. wax pour wax la na la Cheikh Ibra maanaam dangay mbiram da koy bay yow da boo nekk jiri ko lijjën da nga am problème ndax benn mooy moom ku ñaan ñàkk nag sëñ Saliou boo jëndee am Cheikh Ibra daa jënd de sëñ bi comme daa jënd nag mag kenn ku ne ak lam la defal kenn ku nekk ak lam la defal bàyyi Cheikh ku mas a jëflante ci àddina li muy njëkk a tàggale yow mooy tële kii xam na li may wax gis naa tengaa dem boo xam ne ku mu ko dëpp doo mas a tële mukk ci àddina barki saam si xam nga maaka ma ku mu ko dëpp doo tële mukk ci àddina léegi nag lo te loola Cheikh Ibra ko ko defal te ba mu gënee jamono la am ku yor giléem ñëw fekk ko mu tëdd ci lal ñu laaj baayam ñu ne ko baayam kat daa génn mu ne sama listixaar guddi ki ma woon kuy door a ñëw jamono la ñu ne ko kii mi ngi door ñëw ci ñëw jamono amagutul tur mu ne sama listixaar nag mooy sama sëriñ jël na su giléem ko teg ko ci kaw liir bi muy bàyyi seex ne ko jëbal naa sa bopp am na kenn ca mag ñi ku ma ne bàyyi seex moo ma ne ba ma ne ko nangul naa la ko daa tiit ba xam mm-hmm. te boobu joxaguñ ko tur ca ba bis ba dellu see la ko maam Cheikh Rafal léwutul ko bopam moy premier do mam Cheikh ibrahim Fall ci kofu ci mm-hmm. Cheikh wax na Cheikh ibrahim Fall wax na comme saga nga mer da fek nga am bàkkaar mm-hmm. ak defar la te Cheikh ibrahim ko defal mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu graw yu xam ci mom yo xam kenn ko wax yu mu jëflante ay kilifa ak yeneen fek ko xamanteni bi dafa dem ba tawat bañ ne ki faato ci dess sama wayjur moma ne kéro buñ ko indi ci kër ga diko jappo sama kanam la nee na biñ ñu teural ko mu xool ko ne xëy kii dem na ba noppi de xanaa des koy dabi daan nañ wut kaas def ci ndox ñu wut kaas mu téye kaas bi daan na nangam taanu ndeyam ji ak bàyyam ji foofu ko nañu ko ko diw. loolu la ko fajale billahi sama bàyyi nee na ma gisuma mu jël saafara def ci gisuma sunguf gisuma dara ñaar yi daal la tudd te man nag maa ko maa ko sax xaw a rafetal nii waaye fam jaar kenn du fa waaw. noonu ah. ma ne saa la daa fa jot. yow ma jeex na tàkk te loolu Cheikh Ibra ko def ci moom. moo tax Cheikh Ibrahima mbiram da nga koy kala ma ngoog dama la wax ne la ñaanam feeg déggoo mu mu teppi jàppal na ñaan gi nangoogul moom maa la wax loolu de te Cheikh Ibrahima Fall nee na ku mu saaga am nga mer daa fekk nga am bàkkaar moo ma ne naa ci xuur mbàkke maam si ne ko defal naa la dëkk bu jant bii tiim muy ab tollu ci da nga ko pasaa taxaw du jeex sëñ Fallou mi moom sëñ Bada nee mu ma waxtaan na ma sëñ Moussa sëñ Abdou Khadir ba mu tudd Baye Cheikh Ndaw ma ne ko xamoon nga ko mu ne ma waaw daanaa ko romb ci jumaa ji nee na ma ñëw na sëñ Abdou Khadre waaw Cheikh Ndaw Baye Fall may romb ci jumaa ji ko wala day wàlliyu sëñ Abdou Khadre na waxaa ko ñaagal mhm. waaw daa ko te Baye Cheikh ba a mhm. Mhm. la ne Cheikh sëñ Abdou Khadre na Cheikh Cheikh Ba am na lu naa Cheikh Ndaw man léegi nag xoolal kon classe xoolal nee naa la Baye Cheikh xoolal yoon wi ñu ko jaarale te Baye Cheikh benn yii moom seex Ibra dimbalee nag ko ba ku ko xam wala nga xam wala nga xam mbiram xam nga ne du woon dara ci moom moom saafaral na ko ku ne ci àddina da ngay dajeeg mu ne la sama ndey moo ma ne bu du woon a bàyyi Cheikh du ma judd man ah, yaa ngi dégg mooy ku tëlee am doom mooy ku tëlee am soxna muy ku tëlee am borom kër muy hmm? ku feebar ba ci ku nar fan maa la wax maanaam moor njaay Cheikh Ibra Fall ko yóbbu ci garaatu tomb deel ca daari gébbu Fall Baye Mor nag nee na Cheikh bind moom waaw moo ko wax de Baye Mor nee na Cheikh Ibra moo ma ne moor ma ne Fall mu ne ma xalima ga saa borom di sàkk doomu aadama ba ma ko joxee yow mi laaj njëkk a sàkk Baye Mor a wax de waaw te yow boo gisee moor Ndiaye tomb deel sax xam ne muulam ak sunu muul bokkul Mor ku garaaw la Baye Mor <clears throat> dañuy gas teen ba ci Gébu Fall te Cheikh Ibra Fall nag bu da daan liggéeyloo ndax moom nee naa la yoon wi amul dallu Cheikh Ibra nee na yoon wi ñaar lay bañ muy bokkutuma ak yenn ku ñu la yanoon mm-hmm. ku ko def ñàkk di yan bu jëm yomal xiyam la amul boo découragé ñàkk mm-hmm. Cheikh na yoon wi bokkutuma lay bañ ak yenn ku ñu la yanoon Mor bi leen maam Cheikh fekkee ñuy dallu bam mu leen waxee ñii ñu mu ñu nako ñu na moor lu ngeen def ni ñu nako ko dañu dalu mu ne du ngeen am yalla yeen waaw waaye bi maam cheikh soxla ndox ba bay mor na yenkam ci ten bi bi ne dir ñep dañ na deena mor ndjay deena daw ne daw ne cheikh ibra mor ndjay tab na ci ten ba cheikh ibra faal ba tim ko nako mor gennal mu no dafa ne ci biir ndox mu ne ci bi soxla la bokk duma gën taw mu ndox waye bi ne ba timis gi laal maam Cheikh na xëy doom nañ ma jox toogukaay gi ca daara ja bàyyi moo moo fi tax ci biir teen bi dem indi toogukaay bi mu ko tegalee Cheikh Ibra Fall ne bi maam Cheikh bi téen ni loxoom da yam ci moom daf ne kii kan la ci fere yi ne mën a ko mën a Mor Ndiaye mu ne ma yaa duggoon ci teen bi ànd ak ay gocc ne mën a ko waaw mu ne ma doom yaa génnaat kenn yorul ay gocc mën a ko waaw mu doom bi nga xëy si ca man sama xama ci ñeent la toll ñeent mooy kat waaye bi nga duggee ci teen ba génn doom tomb naa sag dell xëyee ñent gonto juroom ñaar témir xolal Cheikh ba du nit de xolal fi mu jëlee Mor Ndiaye ak fu mu ko yobbu xam nga del 4 la nga tomb ko mi 700 wa ci daraja maqamam 4 lako jëlé yobbu ko ci maqamam 700 moy tombu del he Mor Ndiaye tomb na sax del dom loolu la ko wax. lool moy bay wa moy tombu del bay Mor nak daan wax na lu may giñ bu tëë dem and ak reen yi <laughs> waaw lu may ñoddi bu tëë ñëw and ak reenam way duma jambar jàmbar fa rek ci jambar dan xey di jang fuk junniy basmala ak juroom ñaat timet ak juroom ñaat juroom ñaar su pété ci ñeen fuk sortu yasin ak ben bu pété ci ñeen guni maraxib ak benn wéyal fanweer tey si ñet te bokku ta junniy maraxib yi mu daan jàng bàyyi moor junniy maraaxib jaalibatu la daan ci ben bis bu noppé jël kurusam xam lu muy wër ku dajut dam dajoo ku dajut dam dajoo ku dajut dam dajoo mom lolu yegu kayam la won ci la daan fajj aajo mu barkep koke seigne tuba lay waxal mhm. barkep koke yoy ay lim ñum daan faral di wërdu la xam nga mag ñi ñu gëna dégg la faral ku yalla bi mhm. fi nit ñi xamuñu ne turu Cheikh Rafa rek day faj aajo mhm. danaa leen ko baxé nak def ko addi Cheikh Ibra ku am aajo mo xam yi ñuy lijjanti yépp kayit yéeg lu mëna xew ba ci bërëbu kay yi Cheikh Ibra ci gëna gaaw man nak limu leen di wax amul ma dem te ñom mos leen ko tay ku ne am nga kurus wool saamam seex téeméeri yoon nga ko ba xam sëñ Cheikh Oumy Mbacke mu sëñ Fallu ko bi ñuy waxtaan yaa ngi dégg mm. mu ne man sama kuréel gi aw ma wér de turu moo ci wér de man saa bu ma amee aajo bu dëgër saamam seex rafal la ci woo bu may xëy muy sotti mm. xam naa ko toog na fi mu Cheikh ba di wér daw tur tur wa sax xam naa ko Cheikh Rafal nag gees yam ci moom xëcc kurus gi mu dagg mu sànni na ko bujju ngëj doom yaa jommanteeg li ngay woo sama tur wu xuddaam lu ci ay wota mu wi la mm-hmm. gees naa doom di la ma woo ko jar maa a gaaw melax te du ma wutee mm-hmm. kum neex mos ko tay rek cheikh ibrahim fall cheikh ibrahim fall cheikh ibrahim fall cheikh ibrahim fall cheikh ibrahim fall ba mat 100 fois rek nga nga nga nga nga nga nga dis ko ko xol ko ba xam hmm. kooku de seigne bi mo man mo man yi gay di wér yépp bu la neexee do dem fen ci nga tok ngay tok lacc mu woo cheikh mu mu wisi la cheikh ibrahim gaw ñun lolu loolu lañ bolé ak ñom suñu ñew di indi seen addiya muy addi ji bàyyi ko itali di ñëw ci xalif général de Baye Fall ñoo nag ñoom a koy ànd kàddu yi fa sëñ bi di wax yëpp fi ne ku ci bëgg dégg dara sax da dugg suñu biir paas wala nga seetaan suñu émission yi ñoom ñii dégg naa sëñ bi wax ne kenn mënu leen ci bitim réew maa dégg sëñ Cheikh Jëm wax leen kenn mënu leen ci biti ci daayira ci biti ndax saa bu ñuy indi addi yi danañ ko xoolal lii dem ci sëñ Cheikh Jëm bokkut ak lii dem Mbàkke Kajoor te liggéey ba bokkut ak lii dem bokkut ak la jëm ci daaray maam Seera Fall bi ba pare itam mbale mi gasoil bokku ci tabaski yi bokku ci kumte yi koor gi bokku ci dara ak li ñuy waajale fii ci bisu maam Cheikh Ibrahima Fall ba Mouride loola nag comme fekke naa ko ci Sénégal ci kanam suy Cheikh jëm te maa ko mën a wat ci yàlla maa toog sëñ bi seedal leen ko ci seenub liggéey te sëñ Cheikh jëm nag mooy Cheikh Ibrahima ndax moo wax ne wutuma Seera Fall mën waaw maa la wax loolu de te am na lu ma mag ñi mas a nettali loo xam ne bañ ma koy wax yàgg na ci sëñ Cheikh Jëmalaab gi sawan fii ma toog ba bis penc ku fi toog Cheikh bi ne bu diglee def leen su teree ba leen su laajee jox leen su wootee wuju leen ndax su xamul ma xamal ko su amul ma amal ko su mënu ma mën a ko may fett du ma jeer moo tax ay jàmbaar lañ lool yoo xamante ni bii sëñ bi gërëm na leen ci sama kanam ma fekkee te ngërëm yaa ngi fi teg nañ ci télévision du wala nga internet bi yëpp fekke nañ ko sëñ bi sant na leen itam jox na leen ndigal it lo xam fekk na ko ba tay mu wax ni bay fal yep nañ and def ben buum tak nosu liggéeyal seen réew loolu maa ko man sëñ bi wax ko muy deg wa motax dem dém bi ma egsee nii sax ko won ko sëñ sa na jégué nga fi mu ne ma mu ne ko ah, yow kat kon jotay bi ñuy def fifa faaw nga fekke si ko ndax waxtaane Cheikh Ibra te ñun fepp fuñ tek suñ tank sëñ bi ñu fa yàlla Italie gi ak fu mëna doon fepp fuñ tek suñ tank ci ndigal sëñ Cheikh jëm lañ ko fa tek ndax li ñuy liggéey mom mo nako sante ñukoy liggéey tayit it bala ciy def dara dana dugg ci noppam na nangam lañ wara def ba ci ñëw gii nii ñëw gii dara ump ci sëriñ bi xamna fiñ jëm xamna lañuy dox xamna liñ taxaju lool nak a jóg loolu nag ngi koy jottaliwaale mbokki taali bi nek ci taali yépp ñu xam lool xamna ñu ma wuur te man ko gëm te man ko waat moy bi di liggéey lool tayit sa su nek ay kaddu ki ngeerum di ko ci sëriñ bi tabbi ci ñom mako ko fekke lépp maa ay jambar lañ lool loolu it leen koy bu baax tay ñaan suñu borom di ngeen yene ci jotay bi te li ngeen dekk dam tambal daw muy tàmbalee tudde magi Cheikh rafal yi bisu ñaar fani koor daw ngeen tudde won ko defana na señ señ señ Bassirou fallou Cheikh ba ak kenn ci magna defana waaw ren ngeen ñew ci ñaar muy Cheikh Atoumane Diop ak Baye Cheikh daw fasiyene woné sini jaar-jaar ak sini liggey ak xamle len ñom ñoy ñam loolu dara ko solo ndax fexé bañ xam nitu yalla lu am solo la rawatina koo xam ne njariñ képp la fessé won waaw noo ngi ñaan nak sa borom defar defar suñu lepp jaaré ko ci mag ñoo nga xamne am nañu ngërëm waaw di siyaar baax ni mako ko waxan ca ubbi ba rek moy sëñ mam cierno mi ak soxna Maguette ndax gise gi tay la waye soxna Maguette ay at yo xam ñu ngi déggante san téléphone mu yéene won yu lool ndax lan moy di top liggéeyab Cheikh ibrahim lol nak bari na ci bitim rew bari na fi ñoo mom buñ leen gisee dañ nan gune waye liñ ak ñom mom du jeex du xaj amna na ci ñoo doone séq nañ koog ñoom ndeysaan ci teranga ak ci liggéey bi ba lu bëri di jaar seen soxna màgg mi bari na luy dem ci sëñ Cheikh jëm ci addiyam liy jaar sama loxo ci ci xew-xew boo xamante ne bi wala dara lu mu dégg loo xamante ne bi ñu ngi koy liggéey ci Cheikh Ibra Fall lu mu yor du ko xeeb danaan lii kat nañ ma ko ci dugalal loolu noonu maa ngi koy seedal ñëpp di jàmbaar dëgg te bëgg Cheikh Ibra lool waaw waaye nag yoon wi daa amul góor amul jigéen maam Cheikh nee na làmb ji sama kër làmbi xol la Cheikh Ibra Fall ne lafañ bi ne ci kaw lalam bu ko neexee naaw ca ko ub waaw Cheikh Rafal sëñ Moussa ña nga ko wax sëñ Taala ña nga ma ko nettali nee ma sama bàyyi nee na Cheikh Rafal nee ji ci sama kër xol la lafañ bi ne ci kaw la la naa naa ci ko ub lamb Cheikh Ibra kenn du ci dara sëñ Saliou buñ ne ay bokk yooyu kiy jariñe de déedéet du yooyu ay sant faal ak yëpp sant njaay yooyu yëpp yor xam nga lan ko yor muy jëf am na ko mas jamono ci biir kër Cheikh ñuy natt naan la sant sant Fall xam nga lu mu ba mu ne lu mu wax maam Cheikh ah doom bu yaroo rek sant Fall de waaw Cheikh Ibra ko boo yaru rek di sant Fall ndekete yar mën na laa may lu ne waaw loola nag bi ñëwee ci kër gi ba tey loolu lañ gis mooy taalibe gi ak pas-pas bi ak pëseef bi ak bëgg sëñ bi ba pare dégg Cheikh Ibra Fall nag xam nga lu ma gën a yéem soxna Maguette ne naa ko woon démb Cheikh Ibra dana woon ndabe ndab ndekete yow dégg nga Cheikh Ibra boo naan yurub rek mu dugg ci waañu xoolal <laughs> maanaam dafa am ku sa ñëw fi Cheikh Ibra ne ko man de awma doole te bëgg na maa dab góor ñi maam Cheikh ko bindal dab bu bind deel bind baa mu ne ko dabe ndab mhm. ku bëgg a dab góor ñi joxal jigéen ñi lekk ba suur buntu boo rek a fa des mais fii dañuy laaj sax naan yéen lu ngeen soxlaat nangam commande leen rek wax leen nga xam ne yëf yi par ay minute lay ñëw waxuma <laughs> da ngay sarse wu bu mu da ngay da ngay am sax jafe-jafe du yomb waaye nga dem tuuma jurul dëgg ak joxe ñam mhm. kaddu cant ak kaddu ngërëm ci jëmm ji nga xam ne moo daan waxtaan wi muy sëñ Maamu Ndaw di ko sant baax di gërëm waaye dañuy tàmbalee sant ci mbokk yi nga xam ne ñoo fekke jataay bi te jataay bi jëmmi sëriñ Touba rek waral ko ndax jataay bi ñu fi daje ñëpp jëmmi sëriñ Touba ak maam Serapha moo leen fi boole kon nag ku yàlla dafa tawfeex nga fekk jataay bi war ngaa sant bu baax a baax ci tawfeex jooju ndax sëñ Maamu wax na ko am na ñu amoon yéenay bëgg a ñëw te suñ borom defu ko kon tawféex la ju rëy rëy ku fi ñëw am nga tawféex ju yaatu yaatu ndax tey ji ku fi ñëw de dolleeku nga ci sëriñ bi dolli gu wér a wér wér kenn ku nekk tey ji mën naa xam ne am na bi yóbbal ci sëriñ bi kon nag ñoo ngi sant baax sëñ Mamour ci waxtaan wi tege na ci xam-xam waaye tege na ci dal waaye tege na ci ci ak njàngale it mu yaatu yaatu yaatu ndax fi mu tàmbalee rek ci jëmi maam Serapha fi la tàmbalee doon ci leeral waaye dafa dafa tënk wax ja daf ko leeral ci maam Serigne Fall xam ne bokkut a kenn maam Serigne Fall kon waajal la maam Serigne Fall dafa ñëwoon ngir xam le kan mooy Serigne waaye buñ ko toppee cosaanam muy njare e, doy na sëkk waxtaan tey bu fi ñëwoon ndax maam Demba Njare mi nga xam ne mooy seen waajur moo jur Samba Suuna ak Amorum Naar ñaar ñooñu koo dégg mu wax njare rek njaay foofu la sosoo boo ko toppee nag dañuy dem ba ci Abu Darda eh, yor naa fii seen eh, seen liste dañuy bañ mu gudd waaye bu nu yemoon fii bu nu ñëwoon ci seen i tur ku ñuy wax Abdullahi ak Abdul Muttalib moo jur Asis jur Abdul Manaaf jur Abdul Samad jur Asis mu jur Nawfal mu jur Omar Omar jur Omar Mar mu jur xataab jur maar xujja mi jur bakaru daaru bakaru daaru moo jur nag abo darda abo jur njaajan njaay mu jur mbaba njuri njéeme ak laat samba mburi njéeme ak tasi mburi njéeme euh, mbamba mburi mi nak njéeme moo jur nag euh, demba njare demba njare nekk nitu yàlla koo xam ne wàllu yu boo xam ne wàllu yu kamil la moom nitu soxna Roqeya moo jur Mouhamadou Roqeya moo Mouhamadou Roqeya am fa soxna Maram Fall mm-hmm. maam Mouhamadou Roqeya mii nag moom moo dellu siwaat njare mm-hmm. bi mu ñëwee njare ci nijaayam muy Sali Asta bi mu matee denc soxna nag ci la jox maam Seydou Ndiaye mi mm-hmm. kon dafa mel ne maam Serigne Fall léppam ak njare la ndax soxna Roqeya mii nga xam ne mooy maamam moo demoon fële am fa Ahmadu Ahmadu Roqeya Ahmadu Roqeya mooy bi mu waree jël soxna dafa dellu siwaat njare jël fa maam bu Ndiaye kon mel na ne kon léppam njare la kon loolu mooy askan wi maam Demba Njare mii eh, bi nga xamee ne ñëw na gàddaay yor ay dongaam di jàngale eh, dafa am benn jigéen bu ñuy wax njare jigéen boobu nag ñu jël ko mu réer mu koy wër boo dégg ñu naan Demba Njare Demba Njare yàlla njare ab jigéenam la boo xam ne da ko doon wër yor ak juróom ak i ak dongaam bi nga xamee ne ñëw na ba ci benn dëkk bi mu ñëwee yàlla ji xiin xiin woo xam ne wu tar la bëgg taw mu ñëw ci dëkk bi ne leen kat damaa bëgg ngeen may ma foo fanaan sama dongo yi ak sama téere yi bañ mu bañ mu bañ mu bañ mu tawte waa dëkk ba xamal ko ne ko kooku nag doo fanaan da ngay génn dëkk bi daane ko abal ñu dëkk bi mu jël jur ak donga ya génn nag dem dem ci àll bi bi mu génn dëkk bi rek ci tokkoor bi rek ci àll bi rek foofu la suñu borom a sóobee taw waaye bi mu sóobee mam dema njari mi dafa jóg wër donga yi jër doy na ci tànkam bi mu leen wëree toog ci digg bi na ñepp nañ tok ci digg bi jurga ak xalé yi ak téré yi suñ borom si soti taw bo xamna ak ngelaw lo xamanteni bi dara dess bi garab yi faq waaye fi mu wëron ngelaw sax jaru far nak tawut wut ngelaw deful dara biñu yewon nak lañ wax moy jaayil be nañ ko dab yi xam fu mën ti nek na mo xalé ya ak jurga nañ leen na bu ñu man ko ñu mën leen sul kéro keroog bi ñu ñëwee dañ ko fekk fi mu toog nii ci digg bi wër do ngay fi la tok ak ndox dalu fa ngelaw jaru far koku moy mam mam Cheikh ray Fall mi mooy maamoo so kii maam maam Seydou Ndiaye kon loolu di war a fa mooy ñoom dañ leen a waajaloon muy kii nga xam ne mooy maam Seex Ibra Faal sëñ Mamour wax na ko wàllu askanam ci aw day maanaam ci ci buñ ko doon wax ci ci martaba ci dayoo ci senegal, booba jàpp naa ne amul ku ko sut ci màq ba ndax comme que ñu boobu ñoo doon ñoo doon yilif nekk ay buur kon jàpp naa ne kon am na leneen lu ko yittewu lu lool kon bu dee tim waajuram yi nga xam ne wax na ko maam Seydou Ndiaye waajuram wu jigéen ak wu góor dañ doon jàngal alxuraan maam Seydi mu Jaay daa leen war doon yor daara ji kon mu doon nitu yàlla koo xam ne dañ koo waajal ci fànn yëpp ndax bu dee nitu adduna am na ko fële waaye bu dee nitu yàlla it am na ko fële kon bu ko bàyyee ñëw am na lu ñu bëgg jàngal mooy mu xamal ni kan mooy suñu borom subhanahu wa taala kon suñ Mamour euh, li nga leere ci maam Serigne Fall leer na nañ ñi kon kay ni ñuy def mooy ñun nan la ñu topp ba jariñ ci moom te loolu jàpp ne moom wax nañu ko niñ koy jëriñoo mooy ñu jéem a xeeñtu ab jaar-jaaram te jaar-jaaram weesu lu dul topp sëñ Tuubaa bëgg ko wóolu ko doyloo ko yaakaar na ko ndax wax na ko ci biir xam dafa bàyyi yàlla bàyyi bokkam bàyyi boppam na dana sëriñ Tuubaa loola sëñ Mamour wax na ko ca ba muy tàmbali ndax keroog ba mu jógee njare wàqe gi mu nekkoon ndax mu Mouhamadou Roqeya dafa néewoon dool dafa dafa wéradi woon diir bu gàtt leef da daal di wàcc bu liggéey bàyyi maam Seydou Ndiaye bàyyi ko ñaari doom yi maam Saliou Fall ak ki nga xam ne maam Serigne Fall te xam ngeen ne jamono jooju li ñu xënte woo mooy ku am doom yu góor yaakaar ñoom ñaar ñii ñoom lañ ne dann mooy suñu borom lañ lañ lañoon li mu wax na ko ci biir wax ji maanaam boo demee ci njare wàqee dañuy la bu guddee ma nga ca daqaar ya ak ca àll ba fa lay nekk ba fajar mu doog a di jaamu yàlla di nekk ci lam nekkoon ba ñëpp ne dafa wéré comme ni mu ko waxee nii bi nga xamee ne nag sëriñ bi feeñu na ko ba mu ne day dem ci lañ waxee nag maam Seydou Ndiaye na moom day ngërëmal yàlla li muy wax moom day jax na comme ngërëm yàlla gis ko doom ji bàyyi ko fi mu waroon koo taxaw war koo liggéeyal dem na toppi ku kenn xamut booba yoonu murid kenn xamu ko maam Saliou Fall yàlla dafa dafa dafa munta wax wax ji dafa leerut dafa lu dafa dota munta wax waaye moom ku yéemeel ndax na gis na Serigne Touba ñetti at njëkk si maam Saliou Fall gis ku doy waar la moom maam Saliou Fall moom moom yi ñu ne kii dafa lu kii dafa ko ànd ngërëm yàlla ba fan la fee bu demee ci teen yi dañ ko daan dañ ko daan léebuwaale xam nga jigéen ak morom ja bu la tanee dara rek da lay sànni ay wax ay wax mm. ca lañ ko daan léeboo ca ca ca ca teen ba ca teenu njare ba daan ko wax ay wax mi ngoog ak yeneen ak yeneen yoo xam ne di ko wax kon loolu lañ ko daan wax waaye lu tudd mooy na kenn ku nekk bëgg a bëgg a jur ñaar ñi mm-hmm. muy maam Serap ak maam kon loolu li ma wax mooy jigéen fu mu nekk dafay muñ dafay mën a yar mm-hmm. euh, fi ma koy jeexale mooy euh, nañ bàyyi maam Salifal nañ bàyyi maam Serap waaye na ñëw ci soxna Astou Diop seenu càmmiñ la nga xam ne bokkuñu ba wajuru góor wajuru góor jigéen lañ bokk waaye dafa bokkoon ku kiimaane koo xam ne ku mat waxtaane la ki jigéen ñi ndax moom sëñ Daaru Assane Ndiaye lañ ko jox sëñ Daaru Assane Ndiaye moom maam maam Seynabou Ndiaye waajuram ak maam Seynabou Ndiaye ñoo bokk wenn waajur man waajur waajuru sëñ sëñ Daaru waajur sëñ Daaru moog maam Seynabou Ndiaye moom moom moog sëñ Daaru ak maam Seynabou ñoo bokk nday ak baay nga xam na ñoo bokk lépp ñu ñaar euh, bi nga xamee ne maam maam soxna Roqeya kii Asu Diop lu ndaw la maam Seex Fall bi Sëriñ Tuubaa ko woo na ko kaay demal ma ca fii nga xam ne mooy kër Sëriñ dafa mel ne këram ga de donga yu yu yu yu jigéen ña yu góor yi da lépp doole booba dafa yor ay dafa yor ñeenti soxna waaye donga dañoo bari jamono yooyu waaye aw léeb la ma bëgg nga dem fa nag aw léb la maam Cheikh Ibra Fall daal di ñëw fekk soxna maam Seydi mu yaay daanaka ku baax kii damaa digal na ma ne naa wutal wéttal maanaam donga bu góor bu mën a dem ca kër sëñ Daaru sëñ Njaay maam soxna la bëgg a wax booba bi mu ñëwee daanaka waaye man day mbay de sawe tànk daan na leen asu jom mi da lu tuut la waaye nag aw ma keneen naa ko yóbbu foofa xam naa moom la ko suñ tuwaa wax booba di am mbégte lool sëñ Mamour ci teewaay gi nga xam ni yàlla dogal na ni teew nga ko fii ngir lu baax li nga xam ni xam nga ko ci maam Cheikh Ibra ak Serigne Touba nga dinu ko baaxee loolu am nañ ci mbégte lool ndax su yàlla dogalee nga am loo ci xam te xamuñu ko nga dinu ko baaxal loolu am nañ ci mbégte lool di la ñaanal fa nu gudd ak wér-gu-yaram eh, sëñ Saliou yow itam taarkalla yal na sa borom guddal saw fan yow baaxe nga nu loo xam ni ah xëy na ñëpp xamuñu ko man dem na ci loo xam ne si xaw ma koon te it xam naa ko te ci yow ci sa kàddu gu la jóge jërëjëf jërëjëf yow itam kon ñi ngi dellu di sant bu baax ah comme yàlla dogal na ni dafa guddi te sëñ Mamour li mu wax kenn mën cee teg dara sëñ Saaliw moom itam li mu wax tabarkalla xanaa kon li nuy wax mooy jaajëfal mbooloo mi nga xam ne ñoom it teew si nañu ci bis bi ah, sëñ maam Thierno mi nga xam ne yàlla dogal na ni mooy boroom këru eh, ndey màggat moom itam loolu nga ci wax loolu rekk moo wér nit ku baax la nit ku yaatul nit ku tabe la loolu nga wax ci eh, soxna ndey màggat mais nag wax ni ko mu ngi leen di siiwat fu ngeen toll ci liggéeyu maam Cheikh Ibra bi loolu dafa nekk loo xam Eh, wolof njaay dafa wax ni sët day bëgg maam ja te xëy na maam si xërëm maamama loolu mooy moo feeñ ci xolom di feeñ ci bëgg-bëggam ba tax fu mu tollu di ko feeñal kon loolu lu am solo la kon daal li nga xam ne moom la ñu bëgg a tënkee kàddu gi mooy comme guddi na yéen ñëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanalit sa borom yeggale mébét yëpp ci tedd nga yonent bi baaxu borom Tuuba jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu